mbokk ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen gërëm ci ni ngeen ànd ak ñun seen télévision Futurs média di leen dalal ak jàmm ci Déclicu mardi ji di am yaakaar ne ni yéen a ngi ci jàmm en tout cas ñu ngi sant bu baax baax yàlla na jàmm yàgg sax fii ci euh, suñu réew saa su nekkoon dañ koy rekk daal di ñaan pour ngeen mën a nekk yéen ci jàmm mën a wéyal seen ab liggéey comme ni ngeen ko bëggee euh, waaye tamit jàmm sax ci Afrique euh, bi yëpp alors Déclic 22h jot na ba passé fanweeri simili. Euh, tey nag euh, dañuy euh, dalal ki nga xamante ni moom mooy maire bi génn ci kon Ndakaaru di di ni fas yéene nag euh, waxtaan ak moom waxtaan gu yaa euh, jëme ko nag euh, ci dundam jëme ko nag ci li nga xamante ni moom mooy passeem yenn ci ay valeur yi nga xamante ni am ko tey dinañ jéem a xuus bu baax a baax a baax ci am Soham nii pour xam kan mooy ki yoroon kon Lenghé mairie bu Ndakaaru du ma wéet nag ci émission bi comme chaque semaine dañ ciy rek daal di ànd ak ki nga xamante ni moom mooy Marie-Louise Marie-Louise Ndiaye maa ngi lay nuyu bu baax a baax maa ngi lay fay Dieyna. Uh-huh. di nuyu tous les téléspectateurs de la télévision Futur Média. Uh-huh. di nuyu Makumba mi nga xamante ne moom laa bokkal plateau bi. Uh-huh. di dalal suñu ganu tey bi mu Soham Wardini. mu nekk une dame une force tranquille foog naa ci trois dernières années yi dernière année yi lañ ko gis mu éclore mais elle Euh, en silence nekk ci ci biir système bi di liggéey en ci ci suuf man je me je me dis que ba ma ko découvrir ci procès Khalifa Sall la woon dama doon mais dame kan la elle était toujours là assidue chaque matin elle était là. avec son mouchoir di jooy rek. Mhm. donc c'est ce qui m'a marqué elle était toujours en pleurs donc ñu ngi lay dalal je pense que loolu yëpp dinañ ci xuus pour mën a xam kan mooy soxam xam yenn facettes yoo xamante ne xamuñ ko woon ci moom dalal ak jàmm. Mhm. merci beaucoup euh, Marie-Louise comme ni nga ko waxee dañoo fas yéene kon daal di xuus euh, xam kan mooy soxam wax di nii euh, wax tudd nga fi léegi ay jooyam. donc danañ xam loolu yëpp kon ci kanam lay doon. Mhm. Maguette. waaw maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay. Uh-huh. nuyu Marie di nuyu madame le maire Soham Wardini di nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp. Mm-hmm. naka ngoon si. sant yàlla journal nga ba noppi alhamdulilah waaw alhamdulilah rabbil alamin xale yi dañuy tàmm di la TikTok te bu ñu nee TikTok loolu daf ñuy rek euh, daal di neex bu baax a baax Macoumba Beye euh, bu rajo Futur euh, Média Mamadou Ndiaye mi ngi ci kaw danañ ko nuyu léegi kon pour mu wax ak ñun ci lu jëm nag ci ci actualité bu Soham Wardini nan lañ ko gisee ci biir li nga xam ne moom mooy réseaux sociaux yi Mamadou Ndiaye danañ ko nuyu kon ci kanam peut-être laata loolu ñu nuyu suñu invité ah. Mamadou Ndiaye euh, Mamadou euh, voilà Mamadou Ndiaye kon danañu rek daal di rejoindre euh, léegi donc madame le maire ñu ngi lay nuyu bu baax di la gërëm ci wuy si bi di la dalal ak jàmm ci plateau Déclic. jërëjëf Dieynaba. Mhm. kontaan naa torop ñëw fi tey fekk la fii ci plateau bi yow ak Marie-Louise. Mhm. ak Makumba. Mhm. di kontaan ci invitation bi ñu ñaan yàlla lii ñu fi waxtaanee tey. ah nit ñi xam ci lu bari ci man. Mm. ak eh, ci li ma jot a def fii ci mairie Dakar. ah yaakaar naa ne bu waxtaan bi sottee eh, ku ci nekk danga ma gën a xam. Mm-hmm. xëy na xam nañ ma waaye am na ba tey ñoo xam ne yu sew yi waaw waaw yenn yu sew yi. <laughs> en tout cas tàmm nañ ko ci technique chaque fois bu ñu mm. amee invité vraiment dañuy bëgg di découvrir beneen facette bi nga xamante ni peut-être sénégalais yi euh, xamuñu ko. ko mm. mu nekk ci euh, dundinam. Euh, mm. mais aussi ci jaar-jaaram parce que c'est très important pour dam d'amener. Euh, ce petit déclic bi nga xamante ni téléspectateurs yi dinañ ko gis. waaw may nuyu téléspectateurs yëpp. Mhm. vraiment di wax ne am naa mbégte loolu ñëw ci plateau bi tey. mais mhm. balaa ñoo démarrer bëggoon naa nag jaale aussi. Mhm. Lamine Diack ndax Lamine Diack Sénégal perte na une grosse personnalité boo xam ne du Sénégal rek a ko ñàkk waaye Afrique yëpp a ko ñàkk doon nit ku baax nit koo xam ne wax dëgg yàlla occupé na fi ay fonctions yu bari ci réew mi bu dul loolu aussi xam nañ ne sportif bu mag la woon ndax nekkoon na champion de France en athlétisme occupé fi ay post yu bari dont le dernier euh, di président de l'IAAF nit ku baax koo xam ne wax dëgg yàlla perte nañ daal loo xam ne mënoon nañoo gunge ba ci kanam. wallaay ma koy jaale famille am di ko mhm. jaale réew mi yëpp. Mhm. wallaay une grosse perte donc euh, pour le Sénégal personnalité bu mel ni kon euh, Lamine Diack Soham Wardini wax na ko di ko jàll kon Sénégal bi yëpp di ko jàll monde du sport de manière générale Mamadou Ndiaye. Mamadou Ndiaye bu nekkee mi ngi ñuy dégg Vieux Diouf Mamadou Ndiaye on euh, voilà on va le retrouver donc euh, tout à l'heure euh, pour xool un peu réseaux sociaux yi toujours c'est la peut-être première question bu ñuy euh, poser suñu invité yi ndax mhm. euh, ni ko Mamadou Ndiaye di waxee xaas bin yaa ngi in <laughs> maa ngi in <laughs> yaa ngi in de maa ngi in <laughs> sa Facebook ak yooyu in non mais ça se voit euh, que day dégager donc beaucoup d'énergie on va voir tout ça mhm. avec Mamadou Ndiaye donc ci kanam alors Soham Wardini Marie-Louise wax nga ko bañ ko découvrir ci kon procès ki nga xamante ni moom mooy Khalifa Ababacar Sall la woon euh, ñu bari di ko wax donc Lat Mingué à Dakar Dial Diop euh, toute une histoire euh, bu mu nekk ak mairie Dakar bi nga xamante ni daanaka moom moo gën a tax ñu xam ko ñu commencé waxtaan mais en attendant ñu nuyu Mamadou Ndiaye. Marie-Louise d'accord ni nga ko waxee de Lat Mingué à Dakar. Mhm. vous avez fait beaucoup de chemin nga nekk taw teelaw ñàkk say wayjur. Mhm. nekk def yore relève bi parce que tu avais des petits frères. Mhm. ak petites sœurs yoo xamante ne yow yaa assuré. rôle papa ak rôle yaay. mën nga revenir ci sa période d'enfance boobu nan nga ko dundee comme comment yow en tant que femme en tant que jeune nan nga assurer cette responsabilité là. waaw lat menge moom bu ngeen ma joxee naa kontaan foofu laa juddoo. lan menge. Euh, lat laa juddoo fa laa defee école primaire euh, lat menge c'est un beau village sur les berges du Saloum. Mm-hmm. donc foofu laa jàngee école primaire. école primaire laa def lat menge mais bi nga xamee ne war naa dem collège su ma yaay bëgguma woon dénkaane Kaolack. donc il a été obligé de déménager moo papa ne voulait pas mhm. mais mu ne pour ma jàng moom il faut ñu déménager donc on a quitté ce beau village pour aller à Latmingué je rappelle que ma mère sama yaay sama yaay euh, waa Mbàkke la ah Mbàkke la jógee elle est venue s'installer dafa ñëw ànd ak borom këram ñëw installé Latmingué euh, doon fa def commerce ak transport kon man foofu laa juddoo fa laa defee école primaire li ma marqué Latmingué bari na je suis très attachée au village fa laa jànge école primaire ma amoon fa directeur d'école boo xam ne même bi ñu tuxoo kaw la da daan ñëw semaine bu nekk ñëw seet sama cahier yi ak sama devoir yi tellement il était attaché à, ma personne parce que à Latmingué nag bu ñu daan am depuis problème problèmes dans l'école directeur bi bu bëggee xam mu ne dëgg bi man lay oo ah. ne ma kaay raconte moi ce qui s'est passé bu ko defee ma taxaw ci wetam wax wax wax ma ne ma c'est comme ça ma ne waaw <laughs> donc c'est de beaux souvenirs vraiment une belle enfance vraiment ngi am naa fa ay souvenirs yoo xam ne dama koy fàttaliku toujours parce que nekkoon nañ Latmingué mais comme que sama yaay dafa amoon ay xarit da leen daan invité village bu ko defee ñu ñëw jël car rapide boobu ñun ay car rapide lañ amoon mm. donc car rapide bi may dem Kaolack jëli sama xaritu yaay ak seeni doom ñu ñëw yendu Latmingué ba ngoon ñu delluwaat mm-hmm. donc vraiment Latmingué moom dafa ma marqué ba léegi nag kër gaa nga fa mm-hmm. defaraat nañ ko fa léegi léegi ñu dem fa daje fa léegi léegi sax 31 décembre ñu dem. fête ko foofu Latmingué kon 31 décembre bi Latmingué la. <laughs> incha allah <laughs> invité naa leen wala ñu ko naan Ribijon Ribijon. Ribijon. allah. <laughs> période ñëw nga ci enfance bi lat méngé mhm. éducation bi c'était difficile est-ce que amoon ngeen les moyens qu'il faut pour avoir une très bonne éducation oui oui vraiment c'était une enfance heureuse euh, mes parents étaient âgés moom aisés sama sama papa transporteur la woon da doon jënd gerte aussi mm. suñ kër dafa amoon hangar boo xam ne bu tere taxawee saret yi day gaar yëpp fees ci buntu kër gi muy indi seen gerte di di jaay man ak sama rakk bi toppoon ci man sax dañ daan def bu tere jotaan bu ñu bu ñu amee vacances de Noël dañuy teg ay carton di jaay ay tàngal ak yooyu ci buntu boutique bi donc vraiment ngi moom euh, dëkk bu neex la woon fa lañ nekk daal li ñu fa jëlee daal mooy sama jàng yi rek looloo tax ñu toxu dem Kaolack parce que amuloon collège à 11 ans à 11 ans mais, ah, mais, mais c'est incroyable comment euh, wayjur mën a jël yenn décision yi par rapport ak ak ak doomam mm-hmm. parce que yaa ngi naan dat méngee sa jàng moom moo tax ngeen di ngeen déménager donc euh, euh, dafa amoon benn rapport peut-être bu xaw doy waar bu amoon sa diggante yow ak sa ay wayjur waaw moom dafa bëggoon ma continuer sama jàng mm-hmm. te jigéen laa bëgguma woon dénkaane mm-hmm. suñu kër lat ménge la foofu lañ am kër ba ñu fa demee dañu doon luye donc xam nga loolu métti woon na di fay location sa commerce nga indi luye boutique di jaay c'était c'est métti woon na ci moom mais pour doomam yi mën a réussir à l'école moo tax mu def sacrifice boobu jógee Latmingué taxul loolu te premier nuit à Kaolack xam nga yooyu sama papa guddi boobu mu ne sa yaay boo ñu jëlee Latmingué indi ñu fii yooyu di ñu bëgg a rey c'était une première nuit très mm-hmm. mais ah, il fallait faire un sacrifice pour que ñu mën a continuer parce que amuloon collège. moo tax ñun bi ñu demee ba màgg ba kii yàlla suturaal ñu dañu delluwaat village. Mm-hmm. les première quatre pla euh, euh, salles de classe su collège bi suñu famille ñoo ñoo ko. sa papa moom fan la jógee dem Latmingué. sam papa nag euh, Beyrouth libanais la man sam papa il et mon grand-père sama maam sama maam bu góor ki jur sam dafa bokk ci eh, naaru libanais yooyu nga xam ne ñoo jëloon bato bi doon dem Amérique bato bi taxaw dakaar ñoom ñu wàcc. ñu wàcc. ñu <laughs> <laughs> ñu wàccee daal ci lañ tasaaroo nag ñii toog dakaar yenn doomam yi toog dakaar ñeneen ñi tas ci biir. Eh, ci biir Sénégal man ci sama sam papa ci la demee lakk nañu. kon yow américaine nga naroon a doon. loolu laa naroon doon. mu ngi niróo américaine nii sax. américaine laa naroon doon. moo warul nga dëkk mu wàcc dëkk bu baax la de bëri ma neex la xam nga li nga am lan méngé doo ko am ba Denver de. ah, ah leer laa la wax. macha allah c'est très intéressant léegi ñu ñëwaat ci toujours ci ci relation entre parents yooyu. parce que jóge ngeen lan méngé ñëw Kaolack. Mm-hmm. Euh, Euh, Kaolack déjà danga ñuy wax yan école nga fa def. éducation yan école. bi ma ñëwee Kaolack Immaculée Conception lañ ma inscrire. Mm. ma def Immaculée de sixième à la troisième. bi ma amee brevet ci laa soog a dem lycée Gaston Berger à l'époque qui est devenu njaay Ndiaye maintenant. Mm. Mm-hmm. donc après ma dem lycée fa laa jàngee seconde première terminale. Mm. ma am bac bi ma amee bac nag. am borom kër en même temps ci laa ñëwee nag tuxu si Dakar donc 73 ba léegi mm-hmm. maa ngi dëkk Dakar. d'accord pour ñuy wax naan Dakar. yaa ngi fi doog 73 ba léegi maa ngi dakaar loolu dinañ ci agsi mais bi nga amee bac ci nga am borom kër kon yow bi ngay nekk miis ban âge la woon. ah waa Miss bi kay il nga wax si ah, doo fa neex di. Miss bi. 70 la woon. Miss bi Miss semaine de la jeunesse la woon. Euh, doon Miss Sénégal comme ni ñuy def euh, non Miss Sénégal bi j'étais dauphine de Miss Sénégal bi. Mhm. man après boobu année année bi ci topp ci la ñu def Miss Sénégal Coro Thiam gagné ko. Mhm. mais man j'étais Miss semaine de la jeunesse en 1970. après l'année suivante je crois il y a eu Miss Sénégal bi ñu yóbbu ñu ñu les Miss des différentes régions lañ jëloon sélectionné leen yóbbu leen pour ñu compétir ak waa Banjul. ci laa nekkee dauphine de Miss Sénégal. boobu kan moo ko ñëwoon. une Gambienne. ñu wax ci Miss parce que mënuñ ko tëb parce que actuellement benn scandale Miss am na fi. est-ce que Miss avant ak léegi benn la ak ban regard nga def ci ci. man daal xam naa ne bi may dem. Mm-hmm. ki ma jël si ñi ma jël si woon équipe bi ma jël si woon Kaolack sama yaay daf ma leen dénk te maa ngi fàttaliku bu ñu demaan xale yi ne dañuy génn mu ne non kii du génn kii yaayam man la ko dénk. donc du génn donc fi ñu nekkoon fi ñu logé woon fa lañ nekkoon kenn génnu ci kenn demul baali kenn doxewul mhm. ñi ñu indi woon daal ñoo ñu encadré concours bi ñu def ko ñu pare ñu dugalaat ñu ci oto ku ci nekk ñu delloo la sa kër mhm. mais man ba ñu ne yow yaa yow yow yaa nekk maire euh, bu Ndakaaru dañ ma ne euh, euh, ki ki nekk léegi maire Dakar mis la woon mu nekkoon curiosité si man nag jour boobu je me on était à la radio automatiquement portrait bi di daw j'ai dit ah une Miss qui devient quand même maire c'est c'est vraiment quelque chose quoi ah, ah oui oui c'est un parcours hein c'est un parcours c'est un parcours vous avez raison <laughs> ñu revenir sànq ci question bi ma la wax peut-être xuusoo ci mooy euh, sa perte parents yi parce que on on me dit que da nga perdre ses parents très tôt nga am en charge la responsabilité à 14 mm-hmm. ans la responsabilité de tes enfants de tes de tes frères mm-hmm. euh, et sœurs nga nekk yaay nekk papa mm-hmm. euh, expliquez ñu cette période de ta bon metti woon na parce que dañu teel a ñàkk sama maa ngi lay wax c'est à 14 ans que sama papa gaañu ah, ñu des ak suma yaay suma yaay nag doon jàmbaar nag wax mm. dëgg yàlla parce que bi sama papa gaañu elle a continué le travail amoon na car rapide am yi mais xam nga boo nekkee jigéen jaboot kaar kaar kaar nous one est onze dans la famille. ah on est onze trois trois filles et huit garçons. ils avaient que tout man maa doon taaw bi. Hmm. quatorze ans man maa doon taaw bi sama papa di gaañu. donc euh, sonn na jaboot na oto yi commencé di paan xaalis bi commencé jeex. donc vraiment stress boobu mu doon gérer voilà loolu yëpp sama yaay gérer ko mais nag vraiment dafa sacrifier boppam. pour pour ay doomam réussir d'ailleurs sama belle-sœur bi toujours dafa naan man sama mbokk yi dañ ma naan mais yow sa yaay jàngul école nan la mën a def ba am ay doomu professeur ay doomi banquier ay doomi militaire ma ah yàlla. en tout cas moom lu mu bëggoon yëpp mooy doomam yi jàng réussir seen jàng donc elle s'est sacrifiée vraiment sonn na ci torop def na business bu nekk moom fekkee na njëriñ mi ngi gaañu en quatre-vingt-quinze fekkee na tuuti si njëriñ bi mm-hmm. mais nag bu fi toogoon ba tey lay gën a neex mm-hmm. mais mais mais ban ban doole moo la moo la mayoon tey lan moo nekkoon sa secret par rapport sa force pour euh, mën a porter ñëpp parce que généralement taaw si suñu societé yi. comme mm-hmm. nu mu mel taw dafa dafa dafa dafa diis loolu. Mm-hmm. parce que dañ naan la chaque fois sax bu ñu lay ñaana dañ naan la yan na nga am épaule yu diis pour mën a porter ñëpp. Mm-hmm. nan nan nga ko porter en tant que jigéen ak lan nga doon inculquer sa sa sa sa frère yi ak sa sœur yi. muñ xanaa muñ xam nga man wax naa leen bi ma amee bac ci laa am borom kër donc dama sëy si ñëw ndakaar bi ma ñëwee Dakar itam di dem université sama rakk bi toppoon ci man sama rakk bu góor bi parce que ku jigéen ki dafa gaañu en 90 mais ku góor ki moom itam ñëw université donc bi mu ñëwee université man maa ko yore woon moo loolu tax ñuy wax ne man maa yore woon ñëpp le militaire euh, bi mu demee grève ñu dàq ko man maa ko récupéré <laughs> fayal ko ay jàngam évidemment ma am borom kër boo xam ne daan na ma jàppale itam wax dëgg yàlla il faut le reconnaître colonel non non man sama borom kër ah, si la sant militaire ban lañ dàq militaire bi colonel bi mu nekkee lycée dafa grève ñu dàq ko mu ñëw fii dem Papa Gueye Fall laa ko doon fayalee fa la jàngee ba am bagam après mu dem Meknes dugg ci armée bi donc yooyu mooy jàppale yi ma doon jàppale sama rakk yi j'étais ñoom bu ñu jàng see ñëw am nañ fu ñu dal euh, continuer jàng seeni seeni di dem université am tuuti comme étudiant yi rek ñoom itam dañu galéré de comme mm. étudiants yi. fa université métti ñuy dem ak a ñëw mais. ñu góor góorgóorlu rek fas jom rek ba yàlla may leen li leen may tey. on va <laughs> ah, vas-y vas-y la dernière question avant ñuy dem si Mamadou Ndiaye. famille yu mixte musulman catholique. <laughs> sama yaay mooy jullit. Mm-hmm. yaay nag vraiment ci famille Mbàkke Mbàkke yu baax si la bokk sama maam El Hadj Modou bokkoon na ci jawriñu sëñ mm. Fallou yi de son vivant mm-hmm. bon c'est pourquoi quand même euh, waruma wax loolu samay nopp le mm-hmm. mariage n'était pas très bien accepté dans la famille ça, parce que temps boobu à l'époque se marier avec un chrétien c'était pas évident mm -hmm. bon donc euh, loolu yëpp euh, ay jaar yàlla defar daal ay mm-hmm. jaar-jaar mais Sénégal loolu daf fi bari ah, man suñu kër ñaari catholique fa am Émile moo fay catholique ak Antoine mais ñi ci des ñëpp ay jullit lañ donc euh, loolu bari na ci réew mi le dialogue islamo-chrétien ñun ah suñu kër moom suñu kër loolu am na fa mhm. te vraiment amul benn problème bu ñu am on s'entend très bien ñun ñëpp dañuy dégganu te loolu du foofu rek boo xoolee famille yëpp mhm. ah ñii catholique lañ ñii sëriñ lañ mhm. mais loolu Sénégal loolu moo Sénégal yàlla mu daf ñu ko may rek. yàlla daf ñu ko may. dialogue bi c'est tellement sincère surtout par exemple ñun groupe Futurs Médias bu ñuy dem seeti yenn saa yi euh, chef religieux yi bu gisee Thérèse bu takkoo rek. <laughs> Ah, voilà nga kontaan donc euh, vraiment macha allah macha allah yàlla na jàmm jooju sax. ñu dem seeti Mamadou Ndiaye ci kaw Mamadou Ndiaye. waaw soxna Jéréma maa ngi lay nuyu. ça va lu bees. waaw sama va nice ñu ngi nii. sama doom ji gëj naa laa gis. maa maa ngi nii rek dañoo dañoo dañoo tare non tey sa yaay gisu la tey. ma ne tey dañoo taari ndax embouteillage. waaw mais non amul benn problème yow loo def baax na <laughs> alors euh, sànq maa ngi la doon euh, jéem a suuf sa question bi par rapport ak euh, lu jëm ci xaas bi yeeg yooyu noonu mais dégg naa moom sama mwadini ku in la yow loo ci wax. bu nekkee mën nañu am retour fii ci kaw si suuf. noo moom dafa dafa dafa in nag. ah waaw donte génération xaas bin la bokk mais moom dafa in. ah, ah mais kon mi ngi ci digg bi. waaw sama sama <laughs> <laughs> génération ñoom yaay la bokk mais moom dafa in nag. Ah. ndaxte ndaxte peut-être li muy liggéey moo tax ak euh, ni nga nekkee koo xamante ni euh, ñëpp xam nañ ko mu siiw. Mhm. macha allah et puis en plus jiite meeru Dakar meeru bu Dakar. mu mhm. nekk loo xamante ni euh, bariwul lu muy am ci mu nekk jigéen tamit bariwul lu muy am moo tax xam naa ni bari nañ ci ñu koy suivre en tout cas mi ngi ci réseaux sociaux yi. Mhm. ci page yi donte bari na amul nag mhm. amagul nag benn page bu ñu certifié mais gis naa ci mhm. page bi nga xamante ni daal am na lu ëpp 10 euh, 000 followers ñoo xamante ni ah. ay abonné lañ ñu koy suivre foofu ah. euh, Twitter aussi am na ci présence ndaxte lu tolloog 8000 et quelques euh, followers la ci am abone sur Twitter Euh, tamit am na présidence en plus boo déggee ñuy wax am na présidence mooy actualité da koy suivre euh, récemment rek mu ngi euh, def ab njaalam ci génnuk àddina kii di Lamine Diack di wax ni kon xam nga ni mi ngi am en plus li nga xamante ne ay activité am la dañ ko ciy partagé en temps réel mhm. ci page Facebook officielle am mais surtout aussi ci compte Twitter am mhm. en tout cas xam El Wardini gis naa ni déjà bi ngeen tàmbalee waxtaan bi rek ci live bi bari na ci ay soppe ndaxte kër yi bari na ci live Facebook daa bari ay soppe <laughs> macha allah <laughs> eh, ah, en tout cas man de xam naa si dara. gis naa ni internet yi daal déjà uh-huh. commencé nañu tàmbali ba mu nuyoo rek daal ñëpp daw nañ dugg ci live bi commencé ko euh, encourager mais surtout di rafetlu émission bi. Mm-hmm. continuer leen ngeen joxe seen ay euh, question ci hashtag bi di Déclic wala Déclic TFM. Mm-hmm. Euh, muy Twitter muy Facebook muy YouTube live bi nga xamante ni actuellement suñu équipe digitale yaa ngi ci ginnaaw seen ay question ci kanam dañ koy taataan daal di koy fas yéene partager ak suñu invité tey. Mm-hmm. mu nekk koo xamante ni surtout waa Ndakaaru wax na Kaolack nag waa waa Ndakaaru surtout ci mhm. jamono ji. mais mais mais Mamadou Ndiaye est-ce que moom page am yi yow yaakaar nga ni dañ moom mooy suivre boppam wala dañ ko koy. Euh, wala non am na équipe. ah dafa am équipe si ginnaaw mais du am temps bi sax. ma dama foogoon ne dafa bokk ci groupe WhatsApp yi rek. non mën na am mu bokk ci groupe WhatsApp yi WhatsApp xam nga bokkul. ah euh, mën na am mu bokk ci groupe WhatsApp yi. mais ah, am na ñoo xamante ni moom du ñu laal euh, ay ay Instagram ak yooyu ñoom groupe WhatsApp rek la ñuy bokk. <laughs> dëgg la surtout seen génération bi. <laughs> <laughs> mais euh, am na équipe boo gisee boo gisee boo gisee ni ñu organiser page am bi muy Facebook muy Twitter gis dinañ xam ni am na équipe bu am solo buy liggéey ci ginnaaw mm-hmm. euh, ay ndaw ñi nga xam ne miin nañu in nañu quoi waaw dañoo in waaw dañoo in boo gisee ni ñuy communiquer ni nga xam ni ñii ay xale jamono lañ quoi moo xam américaine bu raté la sànq dafa ñëw ne ma I am in <laughs> I am in ma ne la eh, waaw eh, l'âge là c'est dans la tête ah oui ah, ah, c'est dans feeñ na Ah. ma man ñeme naa xale yi de. feeñ na ah. feeñ na ci ah. réseaux sociaux yi ndax yaa ngi wax a xale yi. <laughs> en tout cas peut-être internautes yi mën nañu wax aussi lan moo <laughs> peut-être lan moo leen attiré kon ci euh, ci Soham Wardini man c'est une curiosité bu nga xamante ni euh, donc euh, dama ko dama ko am parce que moom moo njëkk nekk jigéen bu jiitee mairie bu bu Ndakaaru donc curiosité boobu peut-être suñu internautes yi ñuy seetaan donc en direct sur Facebook. Euh, sur Instagram ak suñu yeneen euh, réseaux sociaux yi dinañu mën a wax kon lan moo leen euh, peut-être marqué ci am Soham Wardini Makumba ah xanaa ñu tàmbali rek wala. waaw ayca mais ah. il faut ñu wax tuuti ci jaar jaaram. ci wàllum ci wàllum politique. waaw hmm. AFP ji. Mhm. AFP mooy sa parti d'origine boo xam ne ci nga mhm. tàmbalee politique. waaw d'abord politique nan nga ban âge nga ko commencé ak lu tax nga dem AFP. xam nga bi may dugg politique j'avais 47 ans. Hmm. ñeent fukki at ak juróom-ñaar donc man boobu fukki at ak ñett moo ma dese woon pour ma dem retraite ma ne nag mun naa engagé wu en politique tombe création AFP xam nga Sénégal ni ñuy defee politique rek jëgu saalum saalum la sama mbokk la li mu wax ça <laughs> correspond ma vision ah voilà et à l'époque mes enfants étaient assez grands mënoon naa mm. bàyyi mm. di dem du du gêner daal fonctionnement kër mm. geeg yooyu donc ci laa décidé ni damay engagé ndax sama réew amel naa ko njukkal jàngal na ma jox na ma liggéey mm. euh, boobu itam wax dëgg yàlla yàlla suturaaloon na ma euh, amoon naa kër am naa saleer am naa oto donc il fallait que man tam ma delloo njukkal sama réew jàppale xale yi autour de mois boobu fi ma dëkk dama doon gis autour de moi ma gis xale yi ñi liggéeyu ñu ngi taxawaalu ma ne je vais m'engager en politique xëy na bu ma defee politique danaa mën a dimbali ñi autour de moo tax toujours sama frair bi daf ma naan soo am yow dangaa ngaa juum yow sa vocation da nga waroon dem dans l'humanitaire mm-hmm. ma ne ko dans l'humanitaire boobu aw ma réseau yi xaw ma ñooñu lu ma mënoon def rek mooy engage wu en politique mun fa peut-être di xeex di ànd ak nit ñi di seet lan laa mën a dimbale ma dimbale autour de moi loolu dong moo ma dugaloon en politique mm-hmm. AFP laa musa bokk musuma dugg ci beneen parti musuma changé mm-hmm. temps yii nag dama gelé woon sama activité depuis quelques années dama gelé sama activité mais mairie Dakar comme que amoon naa fa occupation. Mhm. donc yëngatu bi ma bëggoon mënoon naa ko continuer di yëngatu ci mairie. loolu la euh, bon c'est des petits problèmes ça arrive. Mm -hmm. ça arrive je pense que c'est pas la peine de revenir sur ça. Mm -hmm. problème la rek nit ku nekk booy dund da nga am mhm. toog toog sa dund nga am dara loola metti mhm. nga ne boo naa naa naa dëgg sama tànk xaar ba ci kanam ba xam fan laa jëm problème la ci doxinu parti bi wala sa diggante ak njiitu parti bi. non njiitu parti wax dëgg yàlla c'est comme un père pour moi je le respecte beaucoup wax yàlla respecté naa ko aw maag moom yenn problème mais xam nga politique ni ñu koy defee suñu réew. Hmm. moo xaw a compliqué. Hmm. man dama nekk ci parti bi occupé fi ay fonctions yu bari man maay secretaire général commune Mermoz Sacré-Cœur. Hmm. maa nekkoon présidente des femmes de l'AFP du département de Dakar. ba pare bokk ci bureau politique. kon man dama doon liggéey gis nga man bi boo nekkee AFP man rek te tollu dama koy wax ci kaw maa daan réunir chaque mois euh, le département de Dakar les femmes chaque mois dañ daan réunir ba bu fa problème yeeg amee li fi xew yépp bi ma toogee itam vraiment presque les trois quarts des femmes yi ma daan réunir dañ may fekk sama kër chaque fin du mois mm-hmm. vers le onze ñu toog waxtaan daf euh, des activités de développement am tuuti xaalis c'était mieux que li ñu doon def. parce que dama leen ne comme que dañuy dem toujours réunion dangeen di dem man kii yu ma woon méttiwul woon ci man mais ñoom ñi nga xam ne dañ daan paas di dem réunion di dellusi si man leen da ngeen di paas di dem te gisu leen ci seen bopp téye leen ko ñu cotiser te vraiment dañu dégg li ma leen wax. parce que dama leen ne nag ku nekk def mille francs ñu bloqué ko pendant cinq mois donc chaque femme bu fa nekk ah cotiser nga 25000. ñu commencé def suñuy activité di jënd di jaay fi mu nekk ñu ngi leble ci suñ biir mhm. on a commencé avec vingt cinq mille après ñu leble cinquante cent mille donc déjà loolu ñu ngi dimbalante ci suñ biir ba léegi loolu mi ngi am léegi mi ngi am loolu mhm. ci covid bi lañ wàññi woon tuuti réunion yi ndax c'était interdit rassemblement yi mhm. mais ba léegi suñu kees boobu ak suñ fonctionnement boobu mu ngi foofu mais est-ce que dem kaso xalifa Sall ci la sa suspension commencé ci la say problème ak AFP commencé wala déet. ca ca référendum ba la commencé parce que dama voté woon non ñu ne je topp ma discipline parti bi. Mhm. ci lañ ma suspendre pendant trois mois foofu la la problème yi commencé mhm. fa laa dematulee dama toog mhm. parce que du woon man rek maa voté woon non mais ñeneen ñi dañ leen avertir man ñu suspendre. kon dañ la singali woon. waaw discipline de parti. discipline de parti mais discipline de parti du man rek. Mm-hmm. lu tax ñeneen ñu ñu aver lu tax man avertir ruñ ma. Mm-hmm. pourquoi on m'a suspendu. trois mois. sa proximité ak Khalifa la peut-être. ma convoqué fa réunion. Mm-hmm. après loolu ma convoqué fa réunion ñu ne du ma dugg parce que léegi balaa ngaa réunion da nga bind xam nga yooyu yu mel noonu la mais loolu. vraiment man kii naa ko. fàtte naa ko daal léegi nag ah, léegi nag ci liñ jëm. <laughs> génn ba ci liñ jëm. waaw sa digganteeg AFP noo ko nar a lijjantee dafay yem wala bëgg nga mu rafet ba ba muy jeex. ci liñ jëm. waaw hmm. ah man li ñu jëm fan la ñu jëm li ñu jëm kay. Eh, fekk na ma gelé ba pare. waaw léegi gel bi laa wax. kañ da nga fas yéene dégelé wala da ngay da ngay dégelé. wala lu tax may dégelé ndax li xew moo tax may dégelé. loolu laa lay laaj. <laughs> ndax da ngay dégelé wala jeex na seen diggante. non jeex na moom yàlla rek a xam luy jeex moom ëllëg mm-hmm. yàlla rek a xam yàlla rek a xam yow xam nga yaa ngi may waxu AFP man xam nga fi ma nekk nii xam nga fi ma nekkoon mm-hmm. ak xam nga fi ma nekk tey mm-hmm. wala xamoo ko itam ma wax la ko ah? ko de leeral ñu ah, nekk moon taxawu senegal waaw jóge fa léegi waa bunt bi investir la waaw mm. lu tax waa bunt yi lu tax ma dem bunt bi parce que yow askan wi nanguwuñ laa investir nga mu nga Ah, waaw mais lu tax léegi nag nga bëgg may reculer di dem fële di dellusi si fii non fële moom c'est clair et net j'ai gelé fii ma nekkoon li fi xew yéen ñëpp gis ngeen ko j'ai été surprise vraiment xaaruma woon loolu ah bi mu amee itam fekk boobu may maire sortante ñu tegoon ay principe une ne les maires en post conservent restent à leur poste ñu bàyyi ñëpp seen poste ñu ñëw ville de Dakar ñu ne man dañ may dindi. Mm. tànn keneen. bu doon yow nooy da mais oui mais mais li ma comprendre mooy euh, euh, euh, fële na le dañ la dañ la dañ la dañ la donc visé woon. fii tamit ñu visé la finalement c'est quoi le problème. ah justement je me pose la question lan mooy problème bi. parce que tu es femme peut-être. ah yaakaar naa ko de man damaa xam ne dama defe ne xanaa bu fa góor nekkoon. Mm. xëy na ñu bàyyi ko fa. xëy na dañu ne jigéen ñi duñu wax dara te comme que man ñëpp dañu ne dama noppi damaa. damaa ragal bariwuma histoire pànku ma. Mhm. peut-être que dañ defoon ne buñ ma dindee rek ma ma ma toog waaye dama ne déet. loolu man déjà loolu le fait que ñu ne ñii dañuy conserver seen poste man ñu dindi ma j'étais surprise étonnée et à la dernière minute un deuxièmement caucus des femmes defoon fi benn marche une semaine avant. investir ay femmes yu bari tête de man vraiment ñëpp taxaw ne on investit pour la ville de Dakar je suis à mon ñoom dañu bëgg ma remplir ci poste boobu su jigéen ñëpp taxawee wax loolu bu ma delloo gannaaw ndax nit ñi danañ ma respecter mm. est-ce que loolu am naa droit sax daf ko donc ñaari affaire yooyu moo tax li mu yéex ak à vingt-quatre heures laa ko xam mais rek yàlla suturaal na ma ba bunt bi ubbeeku ci man bunt bi bunt yàlla ma ubbil bunt boobu ma ànd ak ñoom. à 24 heures noo ko xamee vous parlez de amoon nga plan B. est-ce que aw ma woon plan B. amoon plan B je répète encore que aw ma woon plan B. c'est-à-dire gis nga man am na sax ñu ma mere parce que dañ daan ñëw bi yëf yi bi ñu jeexee wax kan mooy candidat Dakar nit ñi dañu ñëw ne ma yow lan mooy sa plan B ma ne aw ma plan B amuloo plan B looy def. Mm. ma ne aw ma plan daal dafuma dara duma def dara doo def dara ñi la topp nag noo leen di def ma ne aw ma plan B du ma def dara buñ ma jëlul ma toog ñu ne ma toog loolu ñeme woo ko mais li tax ma dëggal sama bopp loolu moo tax li ñu bàyyi ñëpp man ñu teggi ma. moo nekk déclic bi daal. moo voilà. maa ngi la bëggoon laaj sax luy déclic. <laughs> mooy lan ngeen tuddee seen émission bi déclic. <laughs> mais kan moo la ko wax la veille Khalifa Sall moo la woo wax la ko wala nu mu demee. moo ñëw ba sama kër wax ma nga ni ko lan nag. ma ne ko waaw baax na. ndax santé danaa def sama liste. mais nan la ko laltaaye daa ñëw rek euh, ni la. non loolu nag duma ko wax yéen bàyyi leen loolu. <laughs> wax na ma ko daal man nee naa ko maa ngi kon danaa def sama liste. Khalifa sa sa frère la. sama frère la sama càmmiñ la on a des relations cordiales. kii bu baax ak moom est-ce que sentir nga <laughs> soutien wam ci ci ci choix bi. est-ce que sentir nga euh, soutien am. ah soutien la mu dindi ko di ko soutien. non boo xam ne est beneen buntu bi. non non non na ah, la tuddee choix niñ la écarté ci yeewi. nee moo ko ko annoncé. moo waaw je mm. mais soutien wam man xam na lu ma la wax est-ce que tu as sentir nga soutien la wax. <laughs> dégg surprise. Mm-hmm, mm-hmm. parce que pour man il m'a toujours soutenu. jusqu'à la dernière minute. qu'est-ce qui est arrivé ça vraiment mënu leen ma leen ko wax. Mhm. loolu moom moom moo leen ko mën a wax. et c'est son choix je respecte son choix. Mhm. gis nga àddina politique bi day jeex. gis nga le 23 janvier le 24 janvier. am na comment on va faire. Mhm. buñ ko ñaawalee. comment on va faire après. et surprise rek ngay wax mais est-ce que amul woon tam déception. <laughs> man man nit laa de. nit laa de te damaa am xol. yàpp ak damay am. sensation waaw damay am ay sensation damay am <laughs> ay sentiment. est-ce que amoon na déception. amoon naa déception. Hmm. mais bien sûr que amoon naa déception moi je suis sortante j'ai un bilan à défendre. Hmm. dañ ma dénkoon dañ ma dénkoon ma pare warumaa wax Dakar waaye liñ ma dénk ah. Euh, euh, ma candidature était légitime. Mm-hmm. elle est légitime. c'est pourquoi j'ai tenu moo tax ma ne damay défendre sama bilan te niñ ko defee la. Mm-hmm. ni ñu ko defee moo tax mu metti ma bu ma leen ne mettiwu aussi damay wax dama dama leen di nax. nan lañ ko defee nan lañ ko defee ah nan lañ ko defee. nan lañ ko defee duñ la seppee ci kii bi. waaw yéen daal nag. dafa defee la nan lañ ko <laughs> defee. defin eh, wax niñ ko defee xam ngeen ko niñ ko defee. ñii dañuy toog seen poste lu tax man tooguma maire yi yépp ña nga toog seen poste tous les maires di taxaw qui seen sédan taxaw sont à leur poste et on yi vont compétir ils vont présenter leur bilan et euh, déposer leur candidature. Mm -hmm. ils ont été mais ma dafa am benn image bi nga xamante ne daf ma daf ma marqué ñu ngi wax léegi waxu Khalifa Sall. Mhm. Euh, donc euh, Vieux bu nekkee mën nga ma won euh, image bi bi nga xamante ni donc bii nii. image bi daf ma daf daf ma marqué moo tax suñu ma déggee ngay ngay euh, wax sa diggante ak Khalifa Sall automatiquement sama xel ci image bi la la la dem. lii lan la. mooy ba muy manifester pour libération xalifa Sall. place de la République la woon non. voilà c'est ça place de la République. Mm. Mm. nest sa pas. oui. image léegi nan nga koy mën a jàngatee après di xew fii yëpp. mais lu dans la même coalition on était ensemble dans Taxawu Dakar moi à l'époque j'étais premier adjoint mm-hmm. ma nekk premier adjoint le maire ñu jàpp ko accuser ko bu ñu accusé maire bi moi je considère que man tam dañ ma accusé mm-hmm. il fallait qu'on mène le combat ensemble mm-hmm. loolu Marie-Louise aw ma dara lu ma ci réccu dara dara réccu ma ko ci. et paraît que vous avez très mal vécu l'arrestation de Khalifa Sall. bon vous l'avez vu avec moi peut-être gis ngeen. Mm-hmm. da doon tout le temps il ratait oui. pas les mais <laughs> yow comment bañ la nekk Khalifa mandat de dépôt qu'est-ce que lan la la def. jooy. Mm-hmm. jooy comme tout le monde ce à la mairie. toute l'équipe autour on à la mairie bi ñuy wax mandat de dépôt foofu lañ nekk ñun ñëpp. léegi balaa Marie-Louise di ñëwaat ci bilan dinañ ñëw ci sa bilan ñëw ci sa programme. waaw parce que gis nañ eh, kenn ci concurrent yi Abdoulaye Diouf Sarr mu def programme. Hmm. mais bi nga nekkee maire de Dakar. Hmm. est-ce que gouvernement bi yombalal na la ko wala hmm. tënk na la ci sa doxalin. bi may jël maire bi nag wax dëgg yàlla metti na torop metti na torop euh, un laa def en septembre 2018 ñu élire ma maire tàllal loxo ñëpp. parce que xamoon naa ne bu ma deful noonu du ma liggéey. ñu teg ci ay fan président invité la nga ànd ak moom ci avion bi ngeen tukki. Mm-hmm. Ah, waaw maire de la capital la. Mm. man daal man daal yéen daal jaaxal. mais non non déedéet dama lay laaj da xam ñoom. xam nga dañ doon wax ne maire sax wu bu ngeen bëggee ma wax leen. nu ma waaw waaw euh, xam nga les JOJ ville moo koy porté. Mm-hmm. man. le CNOS Njaaña moo ma oo pour déposer candidature Sénégal defaroon nañ seen yëpp ba dem de ñu ne leen ooy la ville de Dakar loolu lañ ma ooyee ñëw seetsi ma avec des excuses plates je crois à à deux deux semaines je crois du dépôt de lañ ñëw wax ma ko. te biñ ma ko waxee boobu Khalifa était toujours maire c'est lui qui signait les dossiers. ba mm. ñëwee wax ma aussi dama dem ba prison ba fekk ko fa mu ne ma soo am ça c'est pour Dakar ça c'est l'intérêt la ville de Dakar tu signes mm. et tu pars. ñoom ñoo fay sama billet waa Konos yooyu ñoo ma fayal billet ma dem ba ma demee itam mënuma woon toog foofu 15 jours dama dellu si waat ñoo ma fayalaat billet ma dellu. Mm. fekk président ñëw ñu jox ma drapeau bi parce que c'est la les villes portent les JO. duggoo ci président. non. kon avion comme si commercial bi la. commercial bi laa dugg. Ah, xam nga sànq yaa ngi doon wax ne ba nga nekkee sànq yaa ngi doon wax ne ba nga nekkee école. bu maître bi doon euh, doon bëgg xam ni xew ci classe bi dalay woo. waaw mooy nitu dëgg. est-ce que tey yomb na pour jigéen pour mën a dékku lii yëpp. parce que xam naa ne say rongoñ duñ ko fekkee parce que yow da ngaa gaaw a jooy. <laughs> da a jooy. waaw <laughs> waaw mais léegi jooyatu <laughs> léegi jooyatu ma rongoñ ah, yi fer na rongoñ yi fer na rongoñ yi fer na rongoñ yi fer léegi daal jooy amatul noo métti na pour mhm. jigéen vraiment wax nga dëgg métti na torop mhm. metti na parce que xam nga jigéen sensibilité bi nekk si jigéen jigéen daa am xol yërmande daa dafa sensible daal mhm. am na yoo xam ne euh, bu la dalee nga nekk yaay nga xalaat sa njaboot il faut que sa xo sa xol tooy loolu rek la mais du leneen kon léegi rongo mais bëgg naa balaa Marie-Louise di ñëw rek. Mhm. ci cohabitation bi ak pouvoir bi. waa pouvoiru Macky Sall bi. Mhm. Euh, tënk nañ la wala jàppale nañ la ci lan lañ la jàppale si c'est le cas. waa jàppale nañ ma. Hmm. wax dëgg yàlla il faut reconnaître que jàppale nañ ma parce que nag maire bi démembrement ma l'État la te xeex ba fa nekkoon su ma continuer woon bras de fer boobu du def dara. du liggéey mais man maa dem maa demandé audience président man. naa ko demandé audience pour mu recevoir ma audience bi yéex naa am sax waaye ba ma demee waxtaan ak moom wax ko ne il faut mu jàppale ma il faut mu joxe ay instructions ministères yi ñu jàppale ma wax dëgg yàlla def na ko deseere nañ tuuti affaire bi ma mun a commencer liggéey. sans te loolu bu ma sans condition aucune condition. parce que nag man quelque fois damay dégg ay commentaires yoo xam ne vraiment def may metti mm-hmm. aucune condition dimbale na ma. mais yow loolu sa coobare bopp la wala amoon nga ci ndigalu Khalifa Sall. Khalifa daf ma bàyyi woon may liggéey c'est la bu ma demaan di ko wax dara mu ne ma non c'est toi la maire tu décides hmm. mais musuma ne bul dem musuma koo wax. léegi biñ yow yaay maire biñ deseeree ci la ci lañ la bàyyi nga def lan ak lan ak lan parce que moom naroon na fee lépp ministre des finances bi à l'époque ni ko mënoon mhm. lépp. parce que lii boo daanoo waaw ñun ñoo koy fay. Mhm. léegi yow biñ deseeree ñu la bàyyi nga def ko. ah liggéey ak sama budget. dafa ma fi emprunt obligataire wax dëgg yàlla loolu moom xalifa ko defoon mais tous les grands parce que man bañ ma falee dama ne je suis dans la continuité li xalifa projet yi ko xalifa tegoon yëpp yooyu laay continuer donc ci loolu laa lu doon liggéey ak budget ville te vraiment yaakaar naa ne ah Dakar waay yi daal ñooy jugé. est-ce que ci est bi ñu desserré caisse d'avance bi indiwaat nañ ko par exemple. non caisse d'avance amatul depuis 2016. 2016 lañ arrêté woon caisse d' avance. mais ubbiwaat nga ko. mais caisse d' avance non je vais vous expliquer. Mm -hmm. amatul wax naa la depuis 2016 mais caisse d' avance c' est une rubrique de dépenses diverses. Mm -hmm. dépenses diverses la woon te caisse d' avance boobu nag bu ñu waxantee dëgg maire yi fi jaar yëpp utiliser ñëpp xam nañ comment ça s' est mhm. te IGE bi bi mu ñëwee dafa ne nañu waxaat ñu créer caisse bi ak seetaat fonctionnement caisse bi. loolu lañ waxoon mais après ci lañ ko arrêté amatul caisse d'avance c'est une rubrique de dépense diverses ba ñu commencé di ma ne da nga koy dindi mhm. dama ne duma ma ko dindi foofu laa koy bàyyi caisse d'avance boobu c'est les dépenses diverses Il y a plus de caisse d'avance depuis 2016 mhm. donc c'est une rubrique de dépense diverses kii est votée dans le budget le conseil municipal bu ko voté autorisé maire bu utiliser daf koy utiliser mhm. ñi ngi naan waxoon na da nga nañ la waxoon bu laal caisse d'avance c'est vrai quand j'ai vu le président j'avais demandé est-ce que mën nañ amaat caisse d'avance mu ne non. non donc ce n'est pas une caisse d'avance que j'ai utilisée c'est une rubrique de dépense diverses xam ngeen fàttaliku ngeen mhm. bi Covid bi amee président dafa ne nañ réaménager budget yi c'est dans ce réaménagement là qu'on a pris dépenses diverses pour compléter nos achats pour aider les populations et les hôpitaux ndax xalaat xalaatoo ñu contourner li daloon Khalifa dal la tamit. non non parce que moi je suis tranquille avec ma conscience gis nga man li may def yépp te loolu y a des pièces justificatives l'ARMP day ñëw chaque année di auditer marché ville de Dakar buñ ci gisee lu normalul danañ ko wax ragaluma ci dara tiituma ci parce que lekkuma ci dërëm. Mm. population yi laa ko jox ak hôpitaux yi. mais qu'est-ce qui fait courir euh, tey ci mairie Dakar bi. Pourquoi ça attire autant de, de, de... Prestige, je mm. maire de Dakar. Dakar, c'est la capitale du Sénégal. <laughs> Dakar, Dakar c'est une ville monde. Mm -hmm. Dakar. waaw ah, balaa ngaa xam dakaar ak euh, gëdd maire dakaar nga mm. fekk ko bitim réew. nga dem ci organisation yooyu internationale boo fa demee ngay xam ne dañoo respecter Dakar respecter maire Dakar. looloo tax moo tax loolu peut-être que loolu tax. accepté woo décision Yewwi wala. non non man nag wax dëgg yàlla man de. dara feesul sama bët nag man dara feesul sama bët. yàlla suturaal na ma. liggéey laa bëgg liggéey laa laay def. leneen intéressé wu ma être proche des populations loolu laa bëgg je suis dans le mouvement des femmes depuis. depuis je travaille avec les femmes maa ngi liggéey ak jigéen ñi maa ngi uti ay financement maa ngi leen di jàppale ci loolu laa bëgg loolu laa nekk mairie Dakar su ma sa demee dama xam ne comme ni ma leen ko waxee mooy comme sama entrée en politique mm-hmm. bi may dugg politique loolu la woon bëgg a dimbale autour de mois mm-hmm. être proche des population loolu ma dugal ci politique mairie mairie c'est ça mairie c'est une gestion de proximité mm-hmm. looloo tax ma ma ma ma ma tenir ci et nag liñ ma def nag yéen ñii kuñ ko ci defoon xëy na ngeen def lu gën a garaaw li ma def xëy na ñu dégg leen fu nekk. ah ba da ngaa pànkul peut-être. waaw waaw loolu la nga sànq wax nga audience bi le président accordé. waaw euh, sànq wax nga Moustapha Niass c'est comme comme votre père. Mhm. est-ce que nekk proximité bi nga am ak ñooñ yaakaar ne tey suñ la falaatee da ngay dem fële wala voilà doo nekk proche de daal. kon nag ñoom dañ maa yab rek wax naa ko plusieurs fois gis nga taxawu dakaar qui est devenu taxawu Sénégal plusieurs partis ñoo fa nekk. waa AFP ña nga fa PS ma nga fa PS boo waxee ñu ne ñoom kenn mënu leen dàq PS ñoom seen ADN PS la ils sont nés dans des familles socialistes ñoom ay socialiste lañ kenn mënu leen dàq kon socialiste nga fa AFP ma nga fa LD ma nga fa yeneen parti yaa nga fa pourquoi man rek ñu bëgg ma seppi rek na ma yow AFP nga bokk mhm. yow bu ñu la joxee mairie bi danga koy jox pouvoir bi da nga koy yóbbu AFP da nga koy yóbbu lan la ñoom ñoom ñoom waa PS yooyu bu ñu leen ko joxee xanaa dañ koy yóbbu jox ko pouvoir bi ñoom itam ak ñeneen sama yeneen collègue yu nekk ci biir xam nga loolu mooy yabaate. ba waa PS yooyu neexoo wuñ ak pouvoir bi. ah ma ne waa PS yooyu ak pouvoir bi ñi nga xamante ñoo bëgg mairie bi. ah ah. waa PS yooyu. li dal PS yooyu moom ma dal man xam nga man AFP mi ngi ci pouvoir bi. Mm-hmm. te maa ngi nii nekk ci taxaw. Mm-hmm. nekk opposante considéré comme une opposante ñoom itam. ñoom ñii revendiquer seen ADM beneen parti ba ma nga ca ca pouvoir ba ñoom ñu ngi ci ci taxawu nekk dans l'opposition c'est exactement la même chose je ne vois différence gisuma ko en deux ma àggale ak <laughs> am àggale oui ma mayal ma ku ma wax. <laughs> ma ko sa <laughs> photo ak euh, président de la république. bi nga ko ñaanee ni ko ne indiwaat caisse d'avance gi. waaw lu tax mu ni la lan la wax ni moo tax du ko indiwaat. bon boobu xam nga affaire bi c'était euh, pendant devant la justice xam naa loolu taxoon mu ne ma on verra après. Hmm. xam naa loolu moo tax. est-ce que yaakaar nga ni par exemple bu Abdoulaye Diouf Sarr gagné. dina ko indiwaat dina ko indiwaat. ah mun naa am de loolu de moom rek moo xam wax dëgg yàlla. Hmm. loolu moom je sais pas. mais bu dee loolu tamit est-ce que loolu justice la est que loolu njub la. waaw bàyyil ba mu def ko ñu soog a seet ndax jub na wala <laughs> jubul. Hmm. <laughs> bàyyil ba mu ko. léegi bu defee rek ñu wax. mën nañu tàmbali ci bilan bi. ñoo xaar mu pare ba ñu posé question ba pare question bi rek en 2009 nga nekk mhm. conseiller municipal. waaw nga nekk premier adjoint au maire. nga nekk maire après arrestation et condamnation de Khalifa Sall. waaw sa àdduna yaakaaroon nga nekk tey maire. mukk mosuma ko xalaat ci àdduna. en 2009 xam nga benn sigi Sénégal lañ ñëwee à la maire ma nekk neuvième adjoint ñu def mandateur bu neex a neex a neex a neex kenn xamul. kii ci parti bii la bokk walla ci beneen parti la bokk liggéey fii lu am solo nag ba ñu gagné waat 2014 ñu gagné quinze communes au larme foofu la problème yi commencé am ci lañ ma def man premier adjoint te wax wallaahi waxtaanu ci ak man yëguma tinuma wutuma ko ñu def ma premier adjoint ma nekk ci deux ans laa ci nekk problème yi commencé ba bi ñu koy arrêté donc man musuma xalaat ne dinaa nekk maire de Dakar liggéeyuma pour loolu uutuma ko li ñu naan nag yàlla yàlla mooy joxe nguur yàlla mooy fal yàlla moo ma fay mais moo ma fal mais aussi il faut ko que xalifa bëggoon na ko parce que moo ma proposé moo ma proposé yàlla dogal ma nekk maire dakaar ba ma nekkee maire Dakar aussi yàlla laa njëkk a sant sant nag ñi nga xam ne ñëpp voté loon nañ ma ci conseil municipal bi pour ma mën a nekk maire de Dakar tàllal leen loxo ne leen dama bëgg liggéey ak ñëpp parce que nag toujours dañ doon wax ne politique bi nañ ko bàyyi ci biti fii bu ñu ñëwee ci maire bi population yi ñoo ñoo ñu tànn kon dañ leen war a liggéeyal ci loolu démarche boobu lañ nekkoon une démarche participative et inclusive lu ñuy def waxtaanee ci ak nit ñi mm-hmm. balaa ñu koo def tey à l'instant tey lan mooy sa relation ak Khalifa Sall amul dara lu ci ñagas cordial mhm. vraiment relation personnelle personnelle relation politique yi moom gàkk na. <laughs> taxaw daf maa na ma. nga <laughs> ubbi buntu bi ma ubbi buntu bi dugg buntu bi ñëw ubbil ma <laughs> la waaw mooy ñi nga xamante daal ñoom ñoom bu leen bu leen yëngal parce que bu leen yëngalee am seen parce que euh, c'est une personnalité peut-être bu s'approcher xam mais peut Sénégal sénégalais dañ koy euh, découvrir à travers sa sa décision yi ngay yi ngay jël. Mm-hmm. jigéen boo xamante ne du dellu ginnaaw. Mm-hmm. xamoo loolu de mm-hmm. dellu ginnaaw. léegi léegi ñu ne damaa dëgër bopp. bon bariwuma wax pànkuma mais nag am na yoo xam ne boo ma ko defee man bu ma la xasee ba jàpp jàpp naa la mais su ma xasee ba bàyyi aussi bàyyi naa bon àddina nag ku nekk da juum juum reconnaître amul problème mais man du ma mere kenn kenn kenn ci àddina parce que euh, def nga ma lii walla sama intérêt danga koo dindi non non non je ne suis pas dans ça vraiment. Mhm. sama doom la. Mhm. sama doom la. Mhm. amuñu benn relation bu heurté. 2009 au premier tour maa waroon jàll. maa ëppale woon ay voix il me manquait que deux voix pour que je passe maire d'office. Mermoz Sacré-Cœur Mermoz sacré mm-hmm. bon xam nga temps boobu ni ñuy tànnee maire dañuy waxtaan kii fii daaneel nit ñi. Mm-hmm. te sama càmmiñ sax avoué ma ne moom moom ma daaneel foofu <laughs> peut-être que. peut-être que loolu moo tax sama càmmiñ. Xalifa bu egg de <laughs> nekkuma woon candidat 2014 man mandature bi ma defoon ville de Dakar pour man ma dellu ville de Dakar laa bëggoon bëgguma woon jël mairie Mermoz Sacré-Cœur euh, sama doom sax def woon na ne candidat la ma ne ko duma candidat parce que de loolu intéressé woon dellu woon ville de Dakar yeggali lañ commencé woon moo ma intéressé woon nekkuma woon candidat mais moom li mu wax jëme ci yow xam nga moom waxinam léeg-léeg day ñagas waaw mu ci am loo xamante ne nii àgg na la fu sori non moom nee na waxuma dara xale yi rek ñoo nekk ci réseau sociaux yi. di wax mm. yónniw leen. Ah. la wax. Hmm? waxul dara de. Mm-hmm. xam wax. <laughs> waaw gis nga nag man yow. waaw nit ñi dañu ñëw naan ma diw lii diw lii diw lii dafa lii dafa ma ne man damay toog ba gisal sama bopp. ba déggal sama bopp déggal sama bopp. moo tax uh-huh. ñu ne man je suis naïf yow yow yow daal yow ma ne waaw. man daal nit ki dafa may def ma teg ci sama bët. ma soog a gëm ne loolu dëgg la. ngay doo ko réagir ma sax moom dafa joxe slogan comme quoi bu mu dégg wax bu ñagas euh, bind bu ñagas. dara lu ñagas lu ñaaw lu jëmale ko ci quel que soit candidat wala une personne te politique nag dafa laaj voilà dugg ci ring bi xeex ak. kan wax loolu moom dafa joxe o oh, kii eh, ay instruction que bu mu dégg bu ci équipe bu bu ay wax ju ñaaw. loolu bëgguma loolu bëgguma loolu parce que man jàmm laa bëgg. non non mm-hmm. politique nag moom. c' est l' art de gérer la pas l' de se donner des coups de poing ah de de de de se dire de gros mots. Mm-hmm. non moi je suis contre ça. Mm-hmm. et je dis à toute l' équipe. ñoom sax dañ naa maire nag xam nga lan la yow. mun nañ la euh, nangul li nga li nga mel mais ñun bàyyi ñu. Mm-hmm. parce que nag suñu ay morom ñoo nekk ci réseau yi di la attaqué. Mm-hmm. bàyyi ñu defante ñooñu mane leen rek. Mm-hmm. bàyyi leen mais. bëggul defante. defante daal <laughs> man daal politique bi service laa bëgg wax ak nit ñi. wax jàmm loolu laa bëgg mais ay xuloo ay xeex. ay sànni ay ay kàddu yu ñagas yu ñaaw man bëgguma loolu. bu ko bu ko taa dégg fekke woon euh, mu ne ay nopp garmi ak ay gémmiñu garmi <laughs> noonu la koy waxee gémmiñ buy bëgg tout le temps di génne lu baax wala nopp yi bëgg kon di dégg toujours lu baax. Euh, donc euh, Soham Wardini dinañ am tey comme invité mbokk yi 23h jot na nag ba teg ñaar fukki simili ak ñeent dañu ñëw ci question d' actualité yi mais ngeen may ma balaa ñu ñëw ci question d' actualité yi ñu clôturer ak li nga xamante ni moom mooy témoignage yi nga xamante ni indi nañ ko comme ni ñu koy defee kon ci. ci émission déclic bu nekk ak suñu invité c'est important de montrer aussi pan boobu euh, ci suñu ay invité donc avec la complicité de la régie ñu xool kon euh, lenn ci ay témoignages yu ñu euh, kon indil ki nga xamante ni moom mooy Soham Wardini nekk maire sortante bu mairie bu Ndakaaru ñu seetaan ko ñëwaat ci plateau bi li nga moom laa mu natt muy lu wér ci moom mooy nit la koo xam ne am na trop coobare ci njabootam du ci tay du ci sonn mun naa sax ne ñun tey moom moo suñu yaay ndaxte ni mu demee boo ko xoolee bu nekkoon dafa bëggoon topp bëgg-bëggam rek xëy na du yegg si fi ñu si tey waaye daa fàtte boppam pour fàtt njaboot bi xëcc ñëpp boot leen jàppale leen ba nekk mu demal sa bopp. mu di nit koo xam ne dafa fonk diineem fonk réewam fonk njabootam fonk surtout kàddoom. Euh, mun naa ne soom lu bëri li koy bett ci àddina kàddoom moo koy jiite bu joxee kàddoom ba pare du ci dellu gannaaw loolu qualité la boo xam ne ci moom mënul dëñ moom du wor nit bu la xasee ba jox kàddoom ni mu koy waxee pique peel mooy tax mu tas loolu moom lu wóor la te lu wér la ci soom looloo tax itamit nag nit la koo xam ne man dama ko naw naw naa ko parce que mbirum politique bi mu dugg du loo xam ne Euh, daf ko bëggoon dafa toog yaakaar rek ne konk yàlla may na ko njaboot njabootam màgg ba dem mu am jot war na mun delloo njukkee réewam loolu tax mu dugg ci waaye dugg ci pour am xaalis dugg ci pour am place dugg ci pour am tur ndaxte bu dee loolu yëpp yàlla suñu borom baaxe woon na ko ba pare waaye nag bugg a delloo njëkkër réewam moo tax mu ne xaaral mu ñëw dugg seet naka laa mun a jàppale suñu askan ànd ak ay nitam di liggéey liggéey boobu nag mu ngi ci depuis li nga xam ne moom moo wóor te moo bëggoon nit ñi jàpp ko suwaam nit yi jàmm la ba ñu nekkee xale ba tey suwaam musul ñeme sax histoire fu mu déggee waxu coow rek na génn ci nit la koo xam ne dafa teey nit jàmm la ku koy séntu nag ci ay xëbër xëbër ay wax yu bëri yaakaar naa ne doo ko fa fekk li nga xam ne daal moom la musa oote muy ci biir famille bi muy ci ay relation ak ay nitam te moo mun ko seede fu mu fekk ay nit genre mooy puso puso buy nas fu mu gisee lu yàqu mu jéem a nas ko defar ko jikko boobu dinaa ko xamal te ci lay wéy ba tey. am na yar am na sutura boolewul dara ko wax kenn du ko wax ba mu gestu wala dara li wax ak léppam mooy liggéey jëm ca kanam rek loolu la ñaanal jigéen développement la xam am Soham nii dañ koy ñaanal gudd fan donk lii mu am di maire de Dakar mérite la du chance mérite la am lu ko yàlla fayee la dañ koy ñaanal mu am jàmm fa mu jëm mu ñeme ko yàlla jàppale ko ndaxte jigéen bu takk doon première femme de la ville de Dakar jar naa jàppaat jàppale ko ci lii mu nekk lii muy sumb mu yeggali ko ci jàmm def ko ci jàmm yàlla mayaat ko ci ndam jigéen ñi war nañu takku xam ne jigéen ju ñëw doon ba doo ñëw meer war nañ am beneen taxawaay buñ taxawee te li ma gën a kii mooy soam am na jànqam ci kër nekk ak moom def ko ni boppam yàlla def jànq bi yaayam gaañu bàyyi njoboot soam dafa jëli doom yooyu yaayi jànq bi bàyyi indi leen ci këram yar leen ci biir njabootam fexe ba ñu jàng ba réussir ñii am jëkkër ñii am liggéey kim ci mujjee maye am na licence am jàng na ba am ba am jëkkër mu yóbbu ko mu sëy xam nga loolu ci mbaax nit ku baax rek mooy def loolu man mii la njëkk a may biye màkk dañ koy wax gàcce ngaalaama jom ji nga am ni nga taxawoo sa famille askanu réew mi moo la ñor yàlla la ci yàlla jàppale ba li nga sumb yëpp yàlla mottali ko madame le maire nag mën naa ko tënk ci ñetti kàddu rek bi njëkk mooy muñkat bi ndax mooy kiy dégg lu ne waaye doo ko dégg mukk mu jàmbat te dañuy wax ne as su dee muñ day mel ni garab bu ko law bi tiimoon doon ko gor fii ba suba doo dégg bu onk beneen bi ci topp mooy madame la mooy ku doylu ki doylu gi nag mooy lépp lu muy séddale moo ci gën a néewle te bu waree am kuy ñàkk moom mooy ñàkk beneen bi ci topp mooy gor si gor nag dañuy wax ne boo gisee ñu di ko as dafa néew léegi moo tax ñu naan as gor ndax di koy firndeel mooy madame la maire képp ku muy àndal ànd gor ak nawle lay ànd ak yow mooy lépp lu mu am dina la dina dina ko bokk ak yow te lépp loo am mu bàyyeekoo yow ci tënk daal madame le maire mooy mbaax ku ko jàpp jàpp bu baax waaye ku ko bàyyi bàyyi bu baax. voilà donc euh, madame le maire mu nekkoon yenn ci témoignage yi gis nga sa frère bi. Mm. nee na yaa leen uuf ñoom ñëpp. c'est important ñu ngi gis sànq euh, sa bët yi ñu ngi pétillé ba ngay euh, xool euh, donc témoignage yi. Mm. ban commentaire nga siy def. li ma def daal yaakaar naa ni loolu laa war a def hmm. euh, li ñu naan jigéen baax na góor baax na euh, ba takku liggéey jotee damaa takku hmm. euh, yaa nga yaa ngi may wax loolu fu wan léegi photo boobu écharpe bi ñu takk ci ndigg bi ma ne la <laughs> ma ne kol ga nekk ca kaw waaw <laughs> ci ndigg la njëkkee ci ndigg la njëkkee <laughs> suñu yaay bu ñuy jot seen teraanga lool lañ leen di waxal voilà hmm. jéem naa daal te te loolu man wax dëgg yàlla li dama ko def dama kaa war a def moo tax mhm. ma def ko ndax boo nekkee taaw ci kër ah, sa papa la a gaañu sa yaay di di di sacrifier boppam di di liggéey dangaa war a fas jom yow itam jàppale sa yaay ci loolu loolu moo tax vraiment man loolu dafa normaloon pour man mhm. ma toppatoo samay rakk alhamdulilah bi ñu reconnaître ne nekk naa yaay ci moom dama ciy sant yàlla bu baax a baax. Mm-hmm. c'est alors témoignage yi amoon na solo euh, si partie mu mujj bi incha allah dinañu dem tamit xool album photo tout ça euh, euh, pour aussi permettre à l'invité mu dundaat yenn yi nga xamante ni jot na ko jot na ko dund mu dundaat ko ak ñun donc ci kanam ci dernière partie bi avant ñu dem seeti Mamadou Ndiaye ci question internaute ñu ubbi une première tranche donc de questions d'actualité donc ma dem le maire. Euh, uh-huh. bilan bilan bi laa bëggoon ñu njëkkee. Uh-huh. laata marie di ñëw ci euh, programme bi est-ce que mën nga ñu limal cinq yoo xamante ne nii. na bi nga nekkee maire ak léegi. Uh-huh. def nga ko mu mën a doon cëslaayul ñu falaat la nga doon maire Ndakaaru. yoo xam ne nag du lu Macky sàll def yow loo def la. <laughs> ah voilà. <laughs> ville lu ma leen fi wax rek moom ñun ñoo ko def. Euh, damay damay commencer ci projet yu gën a mag yi nga xam ne mooy gën a mu ñu naan structurant projet structurant damay wax ci voirie bi. waaw voirie bi def nañ fi euh, ak BOAD benn prêt bu ñu beew BOAD joxoon. Mhm. defar nañ voirie bi pour neuf milliards. ba projet ba jeexee ville de Dakar. dafa dugalaat beneen projet boo xam ne tey avant may ñëw fii dem naa Sacré Cœur parce que fa lañ ko commencé commencé nañ defaraat tali Sacré Cœur pavage la wala tali. tali laa wax waxaguma pavage. Ah, mooy Sacré Cœur mooy si deux voies yi. ci biir quartier yi. Ah, foofu ci biir quartier yi biir quartier yi foofu am na foo xam ne commencé nañ ko tey yegg naa fa rapidement parce dama doon romb rek gis leen population yi kontaan ma ne leen comme que kontaan ngeen rek man kontaan naa. donc boobu itam c'est un projet de deux milliards et quelques boo xam ne dañuy defaraat ci biir quartier yi xam nga tali yi biir quartier yi boo ci duggee am na tali yoo xam ne depuis indépendance ba léegi kenn defaraatu ko donc yooyu la ñu bëgg a seet ñu defar ko loolu mooy voirie bi damay gaaw parce que li ñuy def nag mënuma koo lim dafa bari juróom la wax juróom yi voilà beneen bi mooy éclairage làmp boo gis muy tàkk Dakar bu dul solaire te même solaire ñun def nañ ci tuuti bu dul solaire solaire moom état bi la mais ampoule yi nekk éclairage public yépp compétence ville de Dakar la benn commune defarul làmp commune defarul ville de Dakar moo defar en collaboration ak les maires des communes. yéenay fay tamit courant bi. courant bi état moo ko doon fay ci ab Ablaye mhm. Wade lañ waxoon ñu koy fay mais lampe bu tàkk Dakar mhm. ñoo ko defar ñu ngi def relamping relamping mooy lan ampoule yi ñuy changé waat ñuy defaraat boo xoolee lampe à sodium yooyu yu jaune yooyu mhm, yépp ñu ngi koy changé daf koy weex mhm. soo demee plateau booru boulevard de la république jëm grand gis nga poto yëpp dañ ko changé daf ko ay poto yu doore yu rafet mhm. yoo xam ne euh, vraiment c'est moderne d'accord lampe yi ak lan lampe yi après lampe yi pavage bi ngay wax usine bi ville de Dakar jënd na ko te ah. boobu itam damay remercier chef de l'état bi ngay wax ne mu ngi may jàppale moo ma jàppale ba ñu libéré xaalis boobu ma jënd usine bi donc usine bi nga xam ne dafa tëjoon boobu ba léegi bu soobee yàlla fan yii rek danañ commencé waat ci pavage bi. ñaata ko jëndee ñaata lañ ko jëndee. Hmm. <laughs> ay milliards yu bari lañ ko jëndee mais jënd nañ ko. Hmm. jënd nañ ko li taxoon mu yéex dafa amoon contentieux yu ci nekk te loolu yëpp. wax dëgg yàlla levé nañ ko. ah usine de pavage la tudd. fa la nekk fii de Dakar ci route de Rufisque ci route de Rufisque bi la nekk. Mhm. Euh, lampe yi toujours. am nañ cinquante deux mille points lumineux cinquante deux mille yooyu ñetti at yi ma nekk man maa ci yokk pour mu ngi nekk cinquante deux mille vingt cinq mille points lumineux yokk nañ ko ci éclairage public bi Dakar ville propre beneen troisième bi puisque cinq rek nga bëgg ma wax bañ ma falee dama ne man buggatuma dégg ñuy lim Dakar ci dëkk yi gën a sàrt ci àddina bi mm-hmm. ma teg le programme Dakar ville propre et ville verte ba ma ko defee dama oote tous les départements ministériels yi nga xam ne ils sont concernés benn réunion boo xam ne ville de Dakar lañ ko def ñoom ñëpp ñu ñëw ñu ñëw ñu installé benn comité technique de salubrité boo xam ne les services techniques yu ville de Dakar ak les ministères concernés environnement urbanisme ñooñu ñëpp ñoo ci dugg ñu teg comité bi commencé di liggéey boo demaan mercredi après-midi DST boobu mooy euh, bi nekk euh, Fass ñu ngi def réunion à 15 heures pour programme li ñuy def ci week-end bi te loolu li ci neexoon population yi ñoo doon am seen ay set setal yu ñu bëgg a def ñoom parce que looy def nag ci désencombrement ak ville propre ak ville verte bu ci population bi bokkul doo ko réussir tout donc ñoom bu ñu amaan seen programme dañuy ñëw foofu mercredi après-midi ñu programme ak ñoom accompagner leen ñooy organiser ñu ñëw accompagner indil leen petit matériel indi leen ay camion ak ay peel accompagnement bi ànd ak ñoom lii mooy sa bilan lii nga bëgg ñu falaat la ci lii doo xaar ma pare mm, travaux yi yow lu la ne cinq rek nga ma wax boo ma bàyyee ma wax la loo xam ne tey beneen bi sur la santé santé santé li ma ci def bari na xam nga hôpital Abass Ndao ville de Dakar ça dépend la ville de Dakar defoon nañ fa centrale d'oxygène def nañ fa hôpital euh, euh, ophtalmo boo xam ne nit ñu bari sax yëguñ ko la fa am comme matériel amul sax ci zone bi yépp très bien équipé centrale d'oxygène récemment jëndal nañ leen scanner am ngeen scanner ni mu cher ñoom baissé nañ prix yi boo demee Abass Ndao mun nga def sa scanner te dépenser lu bari c'est moins cher à Abass Ndao prévoir nañ ren pôle mère enfant parce que fi ñuy dugal xale yi les prématurés là il y avait un problème d'espace donc la ville va mettre là-bas un pôle mère enfant loolu ci santé bi la bi Covid bi amee xanaa yëg nga li ma def. 100 millions wala yëgoo ko. 100 millions non 100 millions bi 100 bi du dara kooku ci force Covid laa ko versé. masque ak ceeb masque ak la waxal ak diw. ak diw ak lan. dépense dépense diverses produits sanitaires yi yooyu yëpp amul. bi ñu ko defee bi ñu tëjee école yi war ko ubbiwaat kan moo équipé école yëpp. loolu gis nga xam nga man bu ñu may wax sax waxi bilan quelque fois du ma bëgg a wax parce que man li ma doon gënal. nit ñi wax li ñuy def mm-hmm. te nag boo demee ci école yi laajte danañ la wax ne ville de Dakar de bu defuloon dana ñaaw ville de Dakar li mu def ci Covid bii pour xale yi dellu siwaat mun a jàng kenn defu ko ci lycée ak collège yëpp dañ leen équipé équipé ba équipe le privé en produit sanitaire en lave-mains en euh, bonbonne pour mettre de l'eau se laver les mains en masque ah et on a fait de masques de sensibilisation un million de masques def nañ ko fi. hôpitaux yi récemment parce que non jeexagul santé li ma ci def bu ma ko ça fait plus de 3 milliards qu'on a mis. donc ci Covid waaw mais problème bi mooy yow budget wu 45 47 milliards lañ la jox approximativement. waaw pendant ñetti at. waaw budget boobu. Mm. buñ ko doon xool par exemple li ngay fay ci salaire. waaw par chapitre chapitre chapitre est-ce que mën nga ñu ko diviser wax ñu lu nekk. ñaata nga fay def. non loolu mënuma la ko wax fii mën naa la yónnee budget bi nga xool ko. gros gros gros chapitre yi laa <laughs> par exemple danga nga naan voirie yi lii laa ci def. waaw investissement. voirie waxuma la 9 milliards waxaat la 2 milliards 300 xam nga ñaata kilomètre nga ci voirie yi. milliards yi nga ne. ñaata kilomètre ngeen ci voirie yi. lay la la gis nga bii ñu nar a def nii bii bu mujj bii. on fera 50 kilomètres bii. bële 167 kilomètres dont 5 kilomètres de nouvelle yu bees beneen bi 157 kilomètres lañ. seen masse salariale maire bi ñaata la par mois. par mois on avoisine 300 mais est-ce ah, que 300 millions nag ci budget annuel 47 milliards. waaw waaye yow damaa pare. 3 ans est damaa pare. pare santé rek laa wax waxaguma éducation. non wax nga santé wax nga pavage. wax nga route wax nga <laughs> lamp yi waaw éducation. éducation éducation rien que pour les prises en charge on est à 2 milliards. prise soo xoolee de à 2000 kii on a milliards là-bas. ren ren rek 2021 on est à 2 milliards de prises en charge scolaire sur la national et sur l'internationale mm. la nationale ce sont les écoles de formation école de formation yi boo amee bac nga ñëw bëgg a métier ñu defal la prise en charge dañ ko mujj plafonné sax parce que demande bi dafa fort sur l'étranger aussi on donne des prises en charge scolaires en France dans tous les pays santé tam da ngeen di prise en charge lu bari ah waaw kay heureusement waxal nga ko sa bopp gis nga fi mu nekk maladie bu ñu demee hôpital dañ leen naan dem leen mairie Dakar bu ngeen demee ñu jëlal leen ko li ñu ci def xaw ma nu mu toll les infirmeries les infirmeries pour les les écoles parce que ci école yi laa nekk ba léegi def nañ quatre infirmeries yoo xam ne infirmerie bu nekk danañ fa teg benn ambulance pour polariser les écoles qui se trouvent dans chaque IEF quatre infirmeries sont en construction dafa ñu dara mais est-ce que du problème sur les travaux waaye rek waaw loolu lañ wax de nee nañ moi je ne communique pas assez. loolu de lañ wax. Mm-hmm. quand même. nga yi. xam nga nekk fi travaux yi hôtel de ville dafa raatuñ ko. Mm. wala hôtel de ville neexu leen. romb nañ fa. romb ngeen peinturaat fay dugg ngeen xool ko. nee na peinturaat rek ngeen fa def. peinturaat duggal ci biir nga xool. duggal rek ci biir nga xool. ñaata ngeen ci def ci xaalis. 800 millions. man daal gisaguma fa xaalis bi dugg 45 milliards li ngay lim lii nii yëpp gisuñu benn. ci biir hôtel de am na beneen bâtiment R plus bu ñu tabax bu ñu inauguré temps yi hmm. ba léegi defuñ dara. non waxuma defu leen dara damay laaj man damay laaj rek. dafa dafa de loolu et <laughs> di envoyé ay cas euh, madame Sow. waaw commune dañ leen di envoyé ay cas de prise en charge. commune commune mooy maanaam ñoom parcelle ak ñoom seen. waaw dañuy yónnee à la ville. Mhm. dañuy yónnee ñu jëfal leen. Mhm. chaque fois le maire envoie on fait des prises en charge. Mhm. yu bare. parce que am na tamit yenn yenn communes yi nga xamante ni euh, su ma jëlee par exemple kaw commune euh, bu bu parcelle ah je je sans pour autant me tromper bàyyi ma wax parce que woon cinq rek la mais nag am na beneen bu am solo boo xam ne. mooy ma wax ko wax ko employabilité des jeunes financement des femmes. financement des femmes au mois de mai on a financé 3500 femmes pour un montant de 140 millions récemment la semaine dernière c'est 8027 femmes qui ont été formées parce que nag li fi amoon bu njëkk dañ doon financé noonu ma quand on s'est rendu compte jigéen ñi bu ñu leen joxee quelquefois dañuy dañuy xaalis bi day nax saay ñu ne balaa ñoo lebalati kenn dañ leen di former nu ñu leen di former on a fait avec benn ONG bu ñëw accompagner ñu dañ leen di former en création d'entreprise en éducation financière forme leen jox leen diplôme bu ñuy génn ñu accompagner huit huit mille vingt sept femmes yooyu bu mujj bi ñu financé c' était à hauteur de deux cent quarante deux millions à peu près bu dul loolu sur les jeunes on a un incubateur à la ville de Dakar. Mm. incubateur bi euh, CPM la tudd. CPM c' est une couveuse entreprise foofu dañuy sélectionner des jeunes garçons et femmes. Mm -hmm. des diplômes qui n'ont pas de diplôme même fois dañ leen di sélectionner ba ñu créer benn plateforme boo xam ne kuy appliquer appel à candidature foofu ngay defee appliquer ñu sélectionner la jël la on a déjà sorti il deux ans une promotion de 40 entrepreneurs qui sont sur le marché maintenant bu yàggul 50 génn nañ là on a lancé l'appel à candidature ki est clôturé d'ailleurs et là on va former peut-être 100 à 150 parce que là dañu accompagner avec Euh, la ville de Marseille moo ñuy accompagner l'école des entrepreneurs du Québec aussi et l'AIMF donc ñooñu ñoo ñuy jàppale ci formation xale yooyu loolu on des emplois toujours nga defuma dara pour les jeunes toujours ah, dégg nga rek non non Makumba danga may bàyyi ma wax na ah, ah, bàyyi ma wax nee yow <laughs> milliards yi may jox lii ak lii rek li ma def xaaral ma wax le permis de conduire on a formé on jeunes permis de conduire permis de conduire boo amee permis mën nga am liggéeyu chauffeur bu yàggul avec Evry ah nous avons formé ay décroché ay jeunes yoo xam dañoo décroché ñu forme leen aux arts visuels 60 yu ñu génnee récemment je crois que parmi les encadrés il y avait l'artiste peintre Kassé a encadrés ba ñu pare ngay wax defuma dara encore. la maison des arts plastiques bàyyi ko rek bàyyi ma ak moom rek. la ak moom la maison des arts plastiques. bàyyi naa la qu'on va ouvrir en de mille vingt deux. Mm-hmm. ñu ngi ko tabax sur Malick culture xam nga culture itam waxuma ci la. <laughs> culture on a le fonds d'appui aux artistes. Mm-hmm. fonds d'appui gis bu njëkk cent cinquante millions la woon. bi Covid bi ñëwee on a un peu diminué. Mm-hmm. et fi mu nekk chaque année te loolu ñun taam nañu de. c'est un jury indépendant formé de professeurs d'université ñooy recevoir dossiers yi sélectionné tànn ñi ñu ciy tànn ñu financé leen nga ne ba léegi dafa ñu daal place de l'indépendance ñu ko aménagé ah? moom c'est la maison des cultures urbaines xam nga foofu mi ngi Géejawaay non non fii en Dakar ok au centre socioculturel de Ouakam mhm. demal foofu nga xool et foofu nag j'en profite pour féliciter les jeunes qui gèrent cette maison parce que nag benn yoon lañ ko jox des fonds quatre-vingts millions je crois defar na ko ba mel ni panaan pour vous dire que on a des personnes des ressources humaines qui son vraiment qui font l'exception à la ville de Dakar on n'a que des gens qui savent bien travailler oui. mmh. toujours puisque on y sur le social le social lu ñuy def yow wax nga ne ay prise en charge yu bari ñu ngi koy def sanitaire mais des na waxuloo ci secours tabaski waxuloo ci secours korité yi waxuloo ci secours exceptionnel yi waxuloo ci secours paak yi loolu yëpp ville de Dakar deful dara Ah, man ma ñëwee sax. mais mais ah. musuma wax defoo dara. Ah, xoolal xoolal jéem a ba dama defoon sax bu ma ñëwee dañ ne ah daal tey kii daal danaa xawaar. mais bu may attaqué nii. mais nag tey damay xuloo ak yow. ni man tamit euh, euh, il faut que ma sànni ko si par rapport euh, à la place de l'indépendance l'aménagement. voilà parce que vraiment suñu doom yi il faut que ñu am espace yi nga xamante ni dañuy dañuy dañuy jouer l'autre jour ma am na ñu ma fa joto yóbbu mais xale yi dugg ci biir euh, jeu de lumière yi vraiment c'était ah, c'est c'est bien ah, et puis des places comme ça oui, oui mais des places comme ça pense que il faut que ñu koy gën a mën a ñoŋal euh, ci ci ci mairie bu bu Ndakaaru parce que xale yi soxla nañu tamit fu ñu foowee xaaral ma wax la wax ma euh, xam nga bi ma ne Dakar ville propre waaw <laughs> ma commencé woon nag di aménage nag rond point yi nag daal di defar sama rond point place de la gare mu mm, jekk mm, mm. Ah, gaa yi ñëw waa ministère bi. Karim Fofana à l'époque Karim Fofana à mu ñëw buddi ko. buddi hmm, ni moo nee na yëgu ko ah. mu mu ñëw mu ñëw dindi ko defaraat ko. ma ne waaw. xam nga man duma xëccoo man. man comme comme man nitu jàmm laa du ma xëccoo. ma ne comme que ñun population yi rek la ñuy defaral te ñoom dañoo bëgg a defar ñu ngi xëccoog man rond ma bàyyi leen rond point ma dem dugg ci quartier yi. ma dem dugg ci quartier yi commencer di defar des charges dans les quartiers. malheureusement désencombrement beeg Covid bi ñëw ak yooyu yëpp ya ça ralentit les choses mm-hmm. mais place de l'indépendance maa ko defaraat mm-hmm. duñ ko wax. Mm-hmm. en place de l'indépendance am na ay temps ni meloon moom jaaduwuloon. mais au moins on a reverdi. parce que ba di xëccoog Khalifa Sall. voilà voilà mais man je dis je la place parce que projet bañ fa amoon c'était tellement beau. les enfants aimaient mais xëccoo xëccoo xëccoo ba mujj ñu réaliser. projet mooy parking bi. waaw parking souterrain lañ fa def am waaw mais xoolal fi mu nekk au moins y de la verdure y a des le les gens peuvent venir. de la lumière y a yow xam nga yow yow au lieu sax nga encouragé ma tuuti félicité ma xam nga jéy na ba mi ngi naan dem na place de la rek dem na gis na pavoisement bi ah sax au lieu jigéen daal gis naa sensibilité féminine gis naa lii gis naa lii nga di ma attaqué rek non attaqué wu mën a soxla si attaqué wu mën defoo dara beneen affaire bi dama dama lay laaj <laughs> waaw ni ngay may laaje nag ah, moom may kii daf lay kiiwal mais par contre commune yi il faut nga jàppale leen aussi <laughs> ci yi euh, tamit il faut ngeen jàpp jàpp ci bu baax a baax parce que les enfants ont besoin de ça suñu doom yenn saa dañ leen di yërëm bu ñu bëggee fooy am fenn fu ñu fu ñu nooyee tuuti euh, duñu ko am euh, y en a y a pas assez d'espace peut-être ci plan directeur ci wàllum urbanisme peut-être il faut ñu ñu ñu koy gën a xalaat pour may njiiti daal espace yi nga xamante ne xam nga jéy na ba avant l'acte mhm. on travaillait en parfaite intelligence avec toutes les communes mais nag acte 3 daf ñu xaw a tooñ tuuti. parce que hmm? depuis acte 3 am. Hmm. ñu ne c'est des maires de plein des commune de plein exercice. Hmm. quelquefois. il y a un petit peu des des blocages des des blocages. Euh, da ngay bëgg a def dara bon. affaire maire la daal loolu la mais mais loolu vraiment pour que qu'on ait une belle ville. qu'il y ait de l'harmonie dans tout ce que nous faisons. il faut ñun entre maires ñuy demalante di waxtaan di defar ensemble nos projets et c'est ça vraiment que nous devons faire je pense que les gens l'ont compris danañ continuer di liggéey en parfaite intelligence pour que communes yi yëpp fu ci nekk ville bi di ñëw di jàppale parce que communes yi aussi xaalis bi ngay wax ne sa xaalis bu bari bi ama damay dem ci commune yi di liggéey ak ñoom xanaa gisoo terrain yi terrain multifonctionnel yi ñuy def. Hmm. on na a fait un à Castor on en a un autre à la Médina ça va démarrer bientôt hmm. il est prévu un autre aux HLM yooyu bu ma koy def ak maire commune bi laa koy def. bu parcelle bi yéen a ko tabax. non bu parcelle bi du ñun. Mhm. boobu je pense que c' est. Euh, euh, jot ci kanam danañu dem fekki Mamadou Ndiaye ci question d' internautes yi kon Mamadou Ndiaye bu nekkee mën na pare donc euh, ñu ñëw ci Marie Louise ci question bilan bi. Mhm. sànq yaa ngi ko doon posé. non man damay avant bilan bi damay ñëw ci coowal marché Sandaga parce que sànq. wax nga mhm. acte 3 <laughs> wax nga wax ne acte 3 je pense que moo indi nga xamante war nañ ko tey nga toog fii wax ko éclaircir ko mooy bâtiment Sandaga bi parce que bâtiment bi dañ ko classé patrimoine national hmm. donc commune bi waru ko toj hmm. ki ko waru se kii domaine u ville bi la hmm. je pense que c'est c'est là où la question du de de de marché Sandaga c'est le bâtiment la question du bâtiment déjà moom moom foog naa moo indi procédure judiciaire bi c'est ak yooyu ak yooyu toj bi commune bi moo ko toj mais euh, maire bi mairie bi moom kii ville de Dakar moo ko moom moo ko moom TF bi ci turu ville de Dakar la ba ñuy def dévolution patrimoine bi en 2014 bi acte 3 ñëwee Sandaga dafa des ville de Dakar kenn joxu ko commune bi xam nga loolu bon ñun ñoo ko moom Sandaga nag dafa gudd histoire bi dafa gudd gudd gudd waxtaan nañ ci def nañ ci ay réunion yu bari demoon nañ sax ba nga xam ne à un moment dañu ne na ko ville même l'état l'autorité le, le ministre dañu ne waaw léegi est-ce que yow mënoo ko def ak commune bi ak état bi j'étais d'accord sur ça bon li ñu naan soit moom euh, du du du kii day toog rek parce que man li ñu ma wax aussi damay toog ba gis man sama kàddu dama koy sàmm pour man dañu naroon def loolu ensemble te bañu ma parce que man nee naa du ma xëccoo mm-hmm. loo xam ne mun naa ko def ak commune bi wala mun naa ko def ak état duma ci xëccoo ak ñoom bu dara desul lu ma kii mun naa sax bàyyi mais bii. doo ko bàyyi duma ko bàyyi parce que dama wax ak maire bi dañu waxtaan ba ñu jàppoon loolu. man ci sama bopp je répète encore jóge naa sama bureau dem fekki ko ba bureau jam ñaajo ànd ak sama conseiller financier ñu waxtaan parce que boobu yëpp damaa bëgg ñu juboo ñu waxtaan parce que nag ville de Dakar yow miy wax ba léegi sama lu ma def ville de Dakar dafa tabax ay centres commerciaux Dieyna Ba uh-huh. espace Kermel uh-huh. xaalisu ville de Dakar ñoo jënd terrain bi defar fa benn supermarché bu rafet soo duggee ci seete su terrain bi sax tu te croirais en Europe hmm? ñu defar ko boobu ba léegi mi ngi tëju pourquoi mi ngi tëju parce que dañ ko doon jaay pas de porte yi parce que euh, le marché Kermel y a des cantines qui son là-bas nit ñi bu ñuy xool environnement bi duñu bëgg a jënd nañu ña taxoon ñu doon ko defar waroon leen jox parce que seen cantine yi dafa lakkoon ñu ñu jox leen gratuitement euh, premier étage bi ak deuxième étage ñu ne dafa tuuti duñu ñu dugg parce que ils préfèrent rester dans la rue. Hmm. boobu benn centre commercial la boo demee Félix Éboué ñu tabax fa benn centre commercial boo xam ne amul en Afrique de l'Ouest 3500 places cantine ak box boobu itam depuis cinq 6 ans pare na ma nga tëju nit ñaa ngi toog ci tali bi hmm. nga dem Djily Mbaye ñu jënd foofu li mbay tout loolu yëpp bañ ko jëndee c'était pour recaser les marchands ambulants ba ma demee seeti ko man ak sama conseil financier ñu waxtaan bi laay waxtaan bu neex ba ñu d'accord mu ne man sax danaa ko prévoir sama budget pour vraiment ñu ñu jël marchand yëpp dugal leen ci centre yi ba may ñibbi mu may gunge xam nga lu ma wax. Hmm. Sandaga nag maa ko moom. ma ne ko nag foofu la ñuy jotee maa ak yow parce que Sandaga moom man maa ko moom duma la ko jox. mais wane nañ arrêté boo xam ne préfet à l'époque moo ko signé. ba léegi man Soham Wardini hmm. ville de Dakar maire de la ville de Dakar jotuma arrêté boobu teguma ci bët ba léegi ba léegi. ba léegi teg ma ci mën nga koo bañ a jot mais teg nga ci bët parce que ñun teg nañ ci bët. waaw teg nañ ci fu xam nga fu ma ci tegee bët man. Hmm. bañ ñu convoqué Descos. xam nga bi mu commencé dem ci ci la ma ci lañ ma ko jox après. parce que dama ñëw Descos waa Descos. waa Descos ñoo man ne madame le maire xam nga dañu arrêté woon kii démolition ah, mhm. mais biñ ma ooyee entendre ma après ñu oo le maire de la commune entendre ko ci guddi gi la ma oo ne madame le maire on peut plus arrêter parce qu'il nous am amené des documents yoo xam ne mënuñu arrêter mais man document yi maanaam bind naa préfet laaj ko ko jotuma ko ba léegi ma la wax ni kenn transmettre ma ko. descos ñoo ma ko woon ci laa convoqué nag conseil municipal bi ne leen nag leen ñu waxtaan ci suñu sàndaga bi parce que nangu nañ ko ci ñun te yëguñu conseil municipal bi réunir ñu ne kon nag léegi comme que noonu la te man duma xeex duma dem ci tali bi parce que période boobu Covid ci woon encore dama dem di dagale ay nit di xeex bu boobaa sax ñu gën a jéppeeti encore politicien ne gis ngeen ñi ay seen poste yi ñoo tax ñuy nekk di xeex di xeex duma ko def ñu convoqué conseil municipal ñu jël décision ne nañ ko yóbbu ci yoon. ma nga ca yoon. ñu ngi koy topp avocat yaa ngi koy topp. loolu laa mën a def mais man lépp loo xam ne day indi coow ak histoire. billaay ku ma ciy xaar doo ma ci fekk. procédure bi fan la parce que nature te man du bu ma ko defee sax du ma nekk soo am. Mhm. voilà. procédure bi fan la toll instant bi ngi ci yoon mi ngi ci yoon mi ngi ci yoon mi ngi ci yoon avo les avocats nous compte régulièrement mhm. mi ngi ci yoon. ñu dem seeti Mamadou Ndiaye ci kaw euh, ñu seeti Mamadou Ndiaye pour question internautes yi euh, parce que li ñu dese ci waxtu euh, daanaka bariwul euh, minuit ñeenti simili moo ko teree siiw. allo Mamadou Ndiaye. waaw maa ngi lay maa ngi lay dégg soxna Dieynaba. waaw na amit waaw naka naka foofu naka. côté boobu ndax mi ngi yëngu. question yi bari na lool sax. mais sànq Makumba dafa sàq mi lancu internautes yi. ci question bi ma posé Makumba waaw. <laughs> soo am li defante ak moom de. question bi mu bi mu bi ci euh, projet am yeeg ci ak ni mu fas yéene euh, amalaate mairie ndakaar bu gañe surtout ci ay programme ak yooyu dafa am solo. Mhm. am na ci euh, benn internet bu ko posé ne ko ba xam na déglu na programme mu adversaire am yi. ci mel ne ay ñoom lan la ci xalaat. Mhm. ndax déglu na sa programme mhm. man sama programme moo ma intéressé. ah doo jël ci xool ci ñoom pour pour. xam na ñuy def pour non ku ci nekk ak sa vision. Mhm. ku ci nekk ak sa vision man xam nga am na lu ma jot a commencé. Mhm. danaa ko bu campagne bi commencé commencé naa sax di ko décliner ci sama visite de proximité yi. Mhm. danaa ko won nit ñi yokk ci li ma bëgg a def ci programme yu bees yi te loolu maa ngi dégluwaale nit ñi. bu fekkee ne am na loo xam ne man prévoir ma ko sama programme je peux ajouter. Mhm. pour décliner mon programme pendant la campagne électorale. pendant la campagne. Mhm. Mhm. Mamadou Ndiaye. voilà euh, beneen bi mooy euh, ñu ne moom dañ koy reprocher parfois euh, ci bi mu ñëwee ci boppu maire Ndakaaru écarté ñi nga xamante ne dañu jege woon xalifa Sall. loolu lan la ci xalaat. <laughs> <laughs> loolu moom loolu moom amul. gis nga man bañ ma falee ci salle bi laa ne je tends la mais à tout le monde jeune na je ne personne je ne fais pas sauter le cabinet du maire xam nga man bañ ma falee normalement cabinet bi dafay sote mm-hmm. changé wu ma kenn ñi fi nekkoon ci xalifa Sall ba tey jii ñoo fa nekk ba tey dàquma kenn écarté wu ma kenn waaye nag sama liggéey dama koy def normalement teg ko ci yoon mm-hmm. ñiy wax écarté am na lu tax ñuy wax écarté waaye duma toog fii di ko wax écarté woo leen donc. Euh, écarté wu ma kenn mi ngi noonu. Hmm. Ah, euh, réponse bi xam naa dinañ am réponse parce que dama ko gis ci euh, chaîne YouTube. bu télévision Média. gis ngeen ñi ci chaîne bi ñëpp ñu doon suivre. bari na ci hmm. lool ay internautes yi nga xam ne tamit dañuy suivre. Uh-huh. en plus question yi dañ doon jaabante diggante Facebook ak YouTube. beeg Instagram bi actuellement bari na ci ñuy suivre waxtaan bi. am na ci kenn koo xamante mu ne lu tax mu arrêté yenn ci projet yi nga xamante ne Khalifa Sall moo ko sosoon. maanaam mbirum meew mi. ak santé informatique bi ak mbirum sport bi nga xam ne dañ ko doon def ci école bi. très bien très bien Aïcha. le lait à l'école mhm. xam nga lu tax amatul. le lait à l'école école primaire lañ ko doon jox. bi acte 3 ñëwee école primaire yi dafa dem ci commune yi. ah waaw waaw ñun léegi CM yi la ñu yore ak lycée yi moo tax lait à l'école amatul. te ñoom moom du ñu naan meew waa CM. ah dañ ñaanee ko mun nañ mun ko nañ ko programmer waat xëy na loolu dana dugg sama programme bu bees bi benn parenthèse bu ndaw rek <laughs> léegi lu tax ñu nangu école yi waxoo dara ñu nangu marché bi nga wete ñaamu ci nga ne école yi bi ñu ko jëlee waxoo dara da nga non lu tax may wax c'est la loi hmm. loolu du ma wax ci acte 3 décentralisation loolu ci bi la hmm. mais mais mais Sandaga bi c'est c'est différent c'est différent. Euh, kii yi euh, euh, loolu kii bi la loi bi la. loi bi moo ko indi. mais des na wax na beneen Mamadou Ndiaye lait à l'école bi la ak lan. ak sport à l'école. ak sport à l'école. sport ba léegi am na. ba léegi am na on a un programme affaire sport moom. Mhm. dama am na benn directrice boo xam ne elle est tellement compétente elle est jeune. moom moo yore directrice. Euh, de la jeunesse et des sports. et elle fait Fanta Diallo. Fanta Diallo elle fait un travail superbe. Mm-hmm. c'est de vacances yi sport à l'école sport dans les quartiers. waaye yow <laughs> non. il faut am temps hein pour wax loolu yëpp. est-ce que ñu ba 4 heures matin Mamadou euh, beneen question bi nee na <laughs> am na ñuy laajte ne. Mm-hmm. yi daanaka gisatuñ ko ci Ndakaaru. mu yi. feu rouge yi. waaye. sëy kay ñu ngi Dakar buñ koy gis ma nag BRT bi dafa am yu ñu déposé woon. waaw bind nañ leen sax ba wax leen ñoom ils ont répondu pour dire que dinañ ko delloo. mais BRT bi yi ñu yàqoon événement mars yi. waaw yooyu itam am na yu ñu ci delloowaatoon yooyu bi événement mars yi pare am na yu ñu delloowaatoon mais bi BRT bi ñu surtout sur Bourguiba dañ ko déposé yëpp. Mm. mais là on a écrit ñoom ne leen danañ ko. delloowaat danañ ko delloowaat. Ah, moom Ndiaye maa ngi lay déglu moom Ndiaye waxalaat. <laughs> nee na nga yokk ndax am na programme pour désengorger capitale bi ndaxte gis ngeen Dakar ni mu étouffé embouteillage ah, ah, fii guddeeg bëccëg actuellement ni moom la ñuy dund est-ce que ci sa programme boole nga ci loolu. nan la ñu fas yéene désengorger waaw waaw mhm. mhm. bokk na ci xam nga ñun dañuy liggéey ak CETUD. mobilité nag pour mu am Dakar li gaa ñi di bañ a dégg. Mhm. il faut ñu désencombrer. ñu dégager trottoir yépp xam nga lu tax oto yi circulé tuñ parce que nit ñi ci tali bi la ñuy dox. Ah, tali bi oto yi ak nit ñi ñoo ko bokk. donc pour vraiment que vraiment oto yi mun a circuler bu baax il faut ñu désencombrer il faut ñu defaraat centre ville bi loolu yépp ci programme la yoo xam ne gis nga pavage bi xam nga plateau presque pavé woon nañ ci lu bari usine bi bu démarrer on va continuer le pavage euh, désencombrement xam nga am nañ beneen projet. macou ba naa projet boo xam ne. la vieille ville. Ah, xam nga xam nga boo gisee ma doon xeex ci Sandaga. gis nga une ville dafay am identité xam nga bu ñu ne dañuy toj rek pour def ay tabax yu bees ay immeuble suñ bëggee def ay immeuble ñu dem Diamniadio c'est là-bas la nouvelle ville mais l'identité de Dakar c'est le marché Sandaga c'est les beaux batiment boo demee ancienne préfecture buñ ko defaraatoon day rafet. chambre de commerce ñu defaraat. ñoom xam nañ loolu parce que gare bi bi ñu ko naree toj dañ ne on. refait ça xam nga xam nga foofu laa la bëgg waxee projet bi ñu am foofu xam nga gare bi du ville moo ko def état moo ko defar. waaw moom laa wax APIX. voilà gis nga euh, foofu espace boobu entre la gare l'hôtel de ville le port de Dakar nous on veut ouvrir la ville sur le port de Dakar te foofu signé nañ convention avec le port de Dakar et avec les le Majal le Majal c'est la fédération des. des agences urbaines marocaines dañu am projet boo xam ne dañuy defaraat foofu ba nga xam ne dañ koy defar ba mu rafet dafay espace piéton oto dootul jaar foofu loolu yëpp ñu ngi ci xalaat pour defar ville bi pour defar centre ville bi nga xam ne da nga mën a continuer nag di dox tranquillement sur tes trottoirs dem di lécher vitrine mm. ah xam nga loolu amatul Dakar léegi ba pare ñuy defar piste cyclable piste cyclable sax avec le BRT là c'est prévu de faire des pistes cyclables waaw loolu yëpp buñ ko defaree daal di fleurir Dakar nettoyer dakaar looy waxati. comme pare mais Sandaga ah? am nga financement bi aussi. <laughs> Ah, am kii Sandaga am nga financement am nga financement bi. am naa xaalis. Mm, kii wax na ko dégg mu neex milliard. Mm. man Sandaga man kese mën naa ko defar man kese mais comme que xëccoo daf ci amoon. Mm-hmm. ma bëgg a partager rek. Mm-hmm. toujours dans cette démarche. Euh, participative inclusive séddoo ak ñëpp boole ànd liggéey suñu réew parce que suñu réew la li ñuy liggéey nit ñi lañuy ñuy liggéeyal lu ñuy xëccoo. Mhm. la ñuy xëccoo. moom Ndiaye. oui. alors des na wala. dernière question bi laa koy laa koy baaxee. xam naa ne du neex du neex Barthélémy Dias une fois nga gañe euh, waaw mairie Ndakaaru est-ce que di nga woo sa doom ne ko kaay ñu liggéey ci mairie Ndakaaru. ndax di nga ah, waaw man damay gagné sax. Ah. su ma gagné ba pare dama koy oo ne kaay sama doom yow xale nga. man sa yaay laa ñëwal ñu ànd liggéey loolu laay def. di ko def. su gañee su gañee nag di nga ko jàppale incha allah incha allah su gañee di nga ko man liggéey rek man liggéey liggéeyal Dakar waaye liggéeyal Dakar loolu rek moo ma soxal leneen soxal ma. moom bëgguma dem pale man je veux président la République. Ah, ah moi je veux être maire de <laughs> j'aime Dakar. muus nga dem ma kenn dàqu laa politique. dara nëbbu boppam. nga gis noppi nga. waaw merci mais yooyu rek la ñu dajale woon ci comme ay questions yoo xamante ni eh, ñi ngi ko jëlee ci eh, internet yi. bari na nag ay questions yooyu lañ ci tànn rek daal di koy eh, échanger ak ki nga xamante ni sunu yaay la. Mhm. di Soham El Wardini am gars yi bëgg nañ ko lool ndax gis naa ne naan. Eh, dañ ko créer slogan sax. dañ ko lu ñu koy waxal. soo xam du du lan du wax day jëf. soo xam du wax day jëf. Ah, xale bu tëddee bëgg naa ko ak suñu yokk jëf wàññi wax. loolu loolu de laa gis affiche wax. yàlla soo xam soo xam du wax day jëf. loolu la loolu la xale yi wax ci internet bi. kon ñu ngi xaar jëm donc xale doo doo doo yow kontaan naa ci parce que yow soo am El Wardini ngay wax ñoom jey na ba ñoom soo am Wardini rek la ñuy wax. <laughs> lu ñu war a wax. El Wardini. El El El e, El El Wardini. xam nga je vais vous raconter pourquoi. oui je au village. Mhm. bon après sama yeneen rakk yi ñëw fois bon papa était malade du dem déclarer ñi bu ñuy déclarer nag dañuy fàtte el bi hmm. moo tax man maa ko ci am ak Edouard je crois trois de mes frères daal am nañ ko mais ñeneen ñi Émile bi amu ko Émile amu ko amu ko Wardini rek la am. Ah, eh, donc Soham El Wardini Rose rek la am. ah non yaa leen yaa leen gën a kii nii <laughs> en tout cas merci beaucoup Mame Ndiaye. merci beaucoup. et la semaine prochaine. incha allah euh, ci beneen ak beneen invité. incha allah mais en attendant on te retrouve demain incha allah ci heure bu baax bi. waaw incha allah. ce sera émission. Euh, midi plus midi plus li xew ci biir internet c'est ça et puis ce sera donc ci biir midi plus mhm. merci beaucoup Mamadou Ndiaye et puis à la semaine euh, prochaine incha allah malheureusement li ñu desi <laughs> li ñu joxoon ci waxtu jeex na mais oui ma ma Makumba mm. man benn rek bi jeex na non non mais foog ñu may ko tamit mu wax ci programme am waaw mais rapidement parce que zéro heure cinq waaw léegi léegi kon madame le maire ah non suba oh, oh, yu ndaw yu ndaw waaw parce que am na li ñu la bëgg a wan kooku il faut ma wax ko. Mm-hmm. parce que l'heure est au leadership féminin. Mm-hmm. donc man damay remercier d'abord euh, toutes ces organisations féminines qui se sont mobilisées mm-hmm. pour vraiment euh, aider accompagner les femmes têtes de liste. mais moi j'ai un programme que je vais dérouler dans les lycées un programme de leadership pour les jeunes filles parce que ce qu'on a remarqué au niveau des lycées des collèges les filles sont toujours les premières. Mmh. Donc ces filles, si on les forme dès maintenant, qu'on les accompagne, ce sont les futurs leaders de demain. Mmh. Et puisque le pouvoir va aller peut-être vers les femmes demain, ah, sûr. il faut mieux qu'on commence maintenant à former nos enfants mmh. pour qu'elles osent briguer tous ces postes de responsabilité. Mm-hmm. La voie était ouverte avec la première femme maire de Dakar. Mm-hmm. C'était une voie ouverte pour nos enfants, pour nos sœurs, pour nos, nos, nos, nos sœurs, oui, je veux dire pour toutes les femmes du Sénégal. Si Madame Wardini tourne la page, qu'un homme remplace la dame, la voie qui était ouverte pour encourager, mmh. soutenir les femmes, pour qu'elles osent, mmh. elle va être fermée. Mm. Mm. Euh, les femmes... Levez-vous, <laughs> soyez solidaires. yaa une femme contre cinq hommes pensez-y réfléchissez et faites le bon choix. Soham El question man juste une question boo xamante ne peut-être d'actualité la. Mm. semaine passée la les propos de Gaston Mbengue lan moo ci sa mm. xalaat. waa mais Gaston puisque vraiment il s'est excusé. Mm -hmm. man boo gisee ma réagiroon. -hmm. je me sentais un peu concernée et puis je me disais nous on doit préserver la cohésion sociale qui est au Sénégal léegi rek laa doon wax affaire u dialogue islamo xam nga bu ne yaa sans jazz y a pas sans jazz y a pas sans Wardini aussi. Mm-hmm. j'ai tout de suite réagi. man mm-hmm. ça c'était ma mm-hmm. première réaction après je me suis dit mais non. on est dans un pays où on parle de la teranga sénégalaise on parle de l'hospitalité au Sénégal fii euh, sama mbokk naar yi par exemple. ñoom ñëpp ñu ngi ca dëkk yu dëkk yu sore yi. après lañ jógee peut-être ay Kaolack ay Guinguinéo ay Gossas ñëw. mais ñoom ñëpp dañu intégré. ñi am comme man am ay jabaru olof ñi am ay jëkkëru mm-hmm. waaw alors nga bëgg a yeewu tey suba sant du dara sant dëkkul fenn mm-hmm. loolu la suñuy mbokk yi di wax sant dëkkul fenn ah, soo am war di ne yaayam tudd Soukeyna Gueye mm-hmm. ah, nga ne du sénégalaise xam nga loolu aussi dafa xaw a kii daal mais nag comme que vraiment excusez wu na juum la nit ku nekk day juum vraiment sama càmmiñ boobu maa ngi koy nuyu au passage di ko wax ne Sénégal noonu la Euh, bu ñu juumee daal nañu reconnaître que dañu juum rek ñu àndaat. Mm-hmm. nit ku nekkay juum amul ku dul juum. amnistie euh, euh, ah? pour Karim ak Khalifa. ne a besoin de tous les a besoin <laughs> mm-hmm. am na ñaari article ci code bi nañ ko dindi rek comme ça gars ñi duggaat ci jeu bi. <laughs> émission jeex na malheureusement donc wax naa ne mënoon nañu ci toog ba 4 heures du matin parce qu'il y a tellement de sujets. yu mm-hmm. ñu rek daal di. prévoir mais bon malheureusement euh, donc lii duuf yëpp xajul euh, ci euh, ci cin bi mais dañuy xool peut-être la dernière rubrique dañ lay woon ay photos yi nga xamante ne peut-être dina am dara lu muy lu muy yëkkati encore ci yaw donc Vieux Diouf la première photo. sama yaay. Mbacke Mbacke. Hmm. Mbacke Mbacke. Mhm. c'est ma mère. photo bi kañ la woon. qui un peu avant son décès. Mhm. ñu ngi décédé en quatre-vingt-quinze e xam naa quatre-vingt-quatorze e quatre-vingt-treize e yooyu la. ngeen ni nu mu tuddoon. Soukeyna Gueye. Soukeyna Gueye waa la. waaw waa Mbacke Baytija sax. elle est née à Baytija elle a grandi à Mbacke avant de venir s'installer à à Latmingué avec mon papa. Mmh. macha allah la deuxième photo. voilà voilà mon papa au milieu entouré de ses enfants. <laughs> yaa nekk noonu ci digg bi. Euh, fële ci kaw. yaa nekk ci kaw borom musóor bu bële bi borom musóor bu bële bi. Ah. ki dend ak moom man la. ah ah bi nga amee 14 ans la. voilà. ça c'est un peu avant son on a il disait kaay leen photo ak man parce que léegi ma de ngeen am au moins une photo. ah oui oui. moom nu mu tuddoon. Georges. Ah, hmm. euh, la troisième photo. Mm-hmm. waaw lii bi ma demee Touba la di ziar si Muntaxa mm, bii nag moom bi sëñ bi ñëwee la maa di ñas mm-hmm. bi mu ñëwee gane si Dakar laa demoon seeti ko mm-hmm. d'autres photos da nga <laughs> doon fecc <laughs> lan nga ah waaw ah <laughs> di fecc la la nga doon ni feccu séeréer yi. feccu séeréer. ah lii de bëggoon nañu koo gis. beneen photo bi. ah lii bi ñuy installé sama frère bi comme zone il a été comme zone de Dakar. oui. colonel mm. Wardini. zone numéro un. waaw. man de mosuma def rapprochement bi. c'est vrai que Wardini bëriwuñu mais bon mosuñu def rapprochement c'est la dernière photo <laughs> voilà. ah ça c'était au Caire. Uh -huh. ak Sadio Mané oui ils étaient là-bas on avait un séminaire en même temps mën naa jaar nuyu leen encouragé leen. oui c'est la dernière photo. alors euh, fii la ñu yem ci déclicu tey euh, gërëm bu baax euh, soo am El ni mi nga mm. xamante ni noonu moom la ñu àndaloon ci déclicu tey bi mm. donc madame le maire lan mooy nekk sa tàggatoo merci beaucoup mm-hmm. merci beaucoup vraiment c'était intéressant ah maa ngi leen di sant di leen gërëm uh-huh. lii baax na ci xam nga nag man gaa ñi nee nañ man journaliste dama leen dama leen di daw. waaw bon euh, je attention mais xam nga rek. ah mais gis nga ne que waaw léegi kay ñeme naa leen. ah waaw kay ah <laughs> tontante yi nga tontante Macoumba kay <laughs> man boo ñëwee journaliste yi <laughs> xaw ma. mais en tout cas vraiment maa ngi uh-huh. leen di sant di leen gërëm émission bi neexoon na uh-huh. j'étais à l'aise uh-huh. peut li ngeen ma mettre à l'aise moo tax ma. et puis les femmes ont pris le pouvoir voilà voilà c'était trois femmes contre un merci en tout cas c'était un plaisir d'être avec vous j'espère que danañ am yeneen occasion campagne baa ngi ñëw. dañ am occasion pour gën a waxtaan. waxtaanaat surtout ci programme bi parce que waxuñ ci lu bari. Euh, euh, Marie-Louise on se donne rendez la semaine prochaine. waaw mardi prochain donc invité bi moom elle agréablement surpris. Ah donc voilà comme ni ma ko doon waxee neex sedd la. Mm-hmm. ñun foogoon nañ ko xaw a sedd la ku sedd na sax ku xaw a kii mais day defante ci suuf. Mm-hmm. gis nañu tontu yeeg Makumba. Mm-hmm. <laughs> c'était un plaisir. donc ñu ngi lay ñaanal ci li ngay def nii yàlla may la ci ndam. voilà ba nga nekk maire donc voilà c'est ça donc merci à Dieyna merci aux partenaires Strass Boutique tey seen couleur la sol uh-huh. rose bleu uh-huh. tey ci rose bleu la c'est les couleurs de Strass <laughs> en tout cas c'était vraiment très coloré pour la tenue et maman Diallo make-up le uh-huh. mardi prochain merci beaucoup euh, euh, donc euh, Marie-Louise à mardi prochain Mac Mic Mac xanaa leeral <laughs> il faut mu leeral sama mbokk waaw moom la ah, gen fii la euh, nu mu tudd sax sa dëkk ba. gën ngeen neew gën ngeen ah, ah, neew waaw gën ngeen neew la. Mm-hmm. Euh, leeralal ko rek ni. bëggoon rek mu leer moo tax ñuy laaje noonu waaye du mukk rek bëgg jël safaan teg la ko wala bëgg lu ñagas non j'ai wala ndax bu dul dara waaw li ma fi li ma doon góor kese nga doon fi yéen ñett ñëpp ngeen nekk jigéen itam yëngal <laughs> mais émission nag man bu may def émission moom damay def buñ paree nag pare na mais noonu waaw noonu la sax mais wax dëgg yàlla nag euh, du lenn loo xamante ne nii bëgg lu ñagas la wala mm. bëgg yu doole mm. loolu ñoo jóg wax dëgg yàlla dañoo mm. bëgg rek mbir mi gën a leer ci bopp nit ñi nga xam ni ñoo ñu taxoon a jóg li nga sumb itam munuma la cee ñaanal ndam ndax kon day mel ni yow laa faral waaye mm-hmm. sutura laa la ciy ñaanal yàlla defal la ko ci mm-hmm. Mm-hmm. boo ko ci amee rek li ci des yëpp moom amul solo ndax ni nga ko jàppee ni yaakaar naa noonu lañ ko war a jàppee cof ko mu doon ay élection kese waaw ku mënti gañe itam ñu ñaanal ko mu mu mu jikkoo mm. te ñu ànd uh, wéy ci liggéey bi xam naa ni nga waxee mm. dinañ gën a xuus ci programme bi parce que mm. junj nga loo xam ne bëggoon nañ cee yegg si muy uh, wàllu encombrement yeeg mm-hmm. marchand ambulant yeeg yooyu yëpp jàmm ji sax xam nga violence bi sax wa évoqué woon ci profité di jaale xale boobu gaañu ci stade bi. stade bi waaw Rufisque waaw loolu itam xam nga lu ñu war a waxtaanee la. Mm-hmm. Mm-hmm. ndax ay élection la ñuy jëm. Mm-hmm. te consensus fu mu amul rek. xëccoo xeex ak violence daf fay am. yàlla nañ ci dem ak jàmm ak salaam. ba bu bët setee ku nekk dem liggéeyi. incha allah. tey ni nga tàggoo neex na ma. da nga jël sa temps et on adore quand on se parle comme ça. en tout cas merci Macoumba euh, Bey merci à Marie-Louise Ndiaye ñoom lañu ñu àndaloon euh, kon euh, ci déclic tey suñu gan Soham El Wardini nekk maire sortante bu donc Dakar gërëm bu baax ñi nga xamante ni ñoom ñoo jàppoon ci liggéey bi Vieux Diouf moo nekkoon ci li nga xamante ni moom mooy régie bi ak toute l' ku lim Diouf merci Mame Biram Diouf pour la coordination de l'émission et j'espère que euh, suñu mbokk téléspectateurs yéen ñu doon seetaan am na benn déclic bu am ci yéen euh, ba ngeen di déglu kon Samuel Wardini comme on a l'habitude donc de le faire si invité yi donc suñu objectif rek mooy gën a yaatal mbir mi euh, gën ko rafetal gën ko neexal ba ñi nga xamante ni ñooy suñu invité ñu am donc sañ-sañu ñu toog wax ci ñoom wax ci seen ay actualité te nag comme ni ñu koy waxee baldu tàkk donc vraiment loolu Makumba waxee sutura bu euh, bare bari merci à toute l'équipe euh, euh, donc de la production merci à Maman Diallo pour la mise en beauté on vous donne rendez-vous mardi prochain avec un autre invité